konto masa guddee masa guddee voix des jeunes voix des jeunes di émission bu len radio sunu keur di jaglel yeen ndawu sénégal mo xam ci li ngay yëngu ak ci bépp domaine bo mën a yëngu rajo sunu keur talal na la microm fassé na la jappalé ngir liggéey liggéey gëna a voix des jeunes di émission bu amul xaj ak sen nak ya pas de sous métier mbokk yi sunu kër point com ànd sunu keur dimanche bu jot ci 10 h ci californie 17 h gmt 19 h à paris kon nak yow bo dé ndaw te développement réew mi soxal la dimanche bu jot na nga ko kale ci sunu keur radio ndax kat déglu sunu keur ñëriñ nan la mën ngeen bokk tamit ci waxtaan bi wooteel 001 920 786 85 30 wala bu fekkee da nga am ay laaj yooyu yónnee mën ko ci sunu kër wala sax am lu easy ajoutel rajo sunu kër ci skype lépp rek sotti seeg def si la du fenn la sunu kër seen kër la maison gaañi kër gi rajo sunu kër mooy vous aimez nos émissions, il est désormais encore plus facile de nous écouter en déplacement. Composez simplement le 641 652 53 35 pour nous écouter de partout aux États-Unis et ce, sur n'importe quel téléphone. Nous nous sommes associés à AudioNow pour faciliter l'accès à vos émissions favorites. Sauvegardez le numéro et économisez sur votre plan de données. Êtes-vous prêt? Encore une fois, le numéro pour nous suivre en direct est le 641 652 53 35. Les appels n'utilisent que vos minutes mobiles. Amenez-nous où vous voulez. Wow, mon nom Sène maa ngi déglu suñu FM. Adre bu jot 3h 4h Cheikh galgal Boy bombo. <laughs> Jaja man la Henry Pope ak radio Yangi ngi déglu suñu radio fete man la de Henry Poupa ci radio Yangi Deglu suñu cœur radio wala bok yangi deglu radio suñu cœur la radio des émigrés man la Henry Poupa Dikay deglu fuma tollu vous aimez nos émissions? Il est désormais encore plus facile de nous écouter en déplacement. Composez simplement le 641 652 53 35 pour nous écouter de partout aux États-Unis et ce, sur n'importe quel téléphone. Nous nous sommes associés à AudioNow pour faciliter l'accès à vos émissions favorites. Sauvegardez le numéro et économisez sur votre plan de données. Êtes-vous prêt Encore une fois, le numéro pour nous suivre en direct est le 641 652 53 35. Les appels n'utilisent que vos minutes mobiles. Amenez-nous où vous voulez. yàgg dëgg la te sul ker du ko teree feeñ en toute objectivité bokk l'une des meilleures émissions de web Radio. bu leen rajo sunu kër di jagleel rawatina yéen ñu nekk bitim réew ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna mu ngeen nga déglu via net ñu ci yëkkati ay kàddu yu objectif lépp rek ngir tabax te xam ni Sénégal sunu gaal la seen kër sunu kër la ba tax na loolu la sunu kër point com xam moo tax mu leen jagleel seen émission en toute objectivité moo xam nga yëngu ci wàllu politique économique culture social, sport bàyyiwul dara 17h GMT 10h ca Californie 13h quelque par aux États-Unis beaucoup si yomb ou si 001 920 786 85 30 voilà bon amee say laaj bopp nga envoyé par email si sunu Voilà, ça hotmail point com wala sax easy ajouté sur Skype radio Sunuker. rec Radio Sunuker. bois les secs, mom moom sa vous bu Ce que tu liggéey wi ndax kat compétence indépendance et crédibilité juste pour vous informer Ouais, limon moo neex a kon na gaa du fenn la maison Radio Sunuker. Moi, bambou. Senegal bread gum. Senegal bread gum. Welcome to Senegal bread gum. Vous, directeur de société, chef d'entreprise, businessman, particulier, association, fédération, GIE, chef d'agence, ce message vous concerne. Venez soutenir notre radio en sponsorisant nos émissions et gagner en visibilité auprès de nos 50 000 visiteurs par jour. Pour mieux communiquer avec le public ciblé, pour plus d'infos, veuillez nous contacter au 001 951 665 85 35 ou par email radiosunuker@hotmail.com. mbokk société nga nekk entrepreneur nga nekk chef d'entreprise Radio sunu kër ngir fësal lépp li ngay liggéey jagleel na leen espace bu yaatu ci sunu kër point com ngir rek ngeen mën a fësal seen liggéey ci ay njëg yu amul fenn moo xam ngeen yor association ngeen xewle programme bu mu mën a nekk rajo sunu kër pare pour jàppale leen ngir rek mën a fësal li nga xamante ni moom ngeen di bu ngeen bëggee fësal seen publicité mën ngeen a woote ci 001 951 665 85 35 kon nag ñu ngi leen ciy xaar rajo sunu kër compétence indépendance et crédibilité disponibilité juste pour vous kon nak ñu ngi leen di xaar gaaw leen gaaw ñëw nakat promotion bo gis amna app. vous écoutez vous écoutez sunu kër rajo sunu kër rajo. yéen a ngi déglu rajo sunu kër. jaajëfete man la de Henry Poe Passy radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. sunukër.com sunukër.com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 donc loolu mu koy def ba yalla def mu yobuma def ma directeur général Petrosen ñu toogati dir mu woo pour yobuma ministère de l'énergie, des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si leneen lu chaque fois moy wo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fi bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am on ma si équipement 10. Quand surchargé bu 10 ñu ci Idrissa gouvernement bureau la première fois ne ma toogal gouvernement boole ma ci pour ma koy jox ministre nga ma ko ma jox finalement ma ko kon xanaa ma des fi ma muy ak ministre. ndax ngi la ciy secteur la je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

ñii nga xam ne nag leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk ma jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bu nekk yàgg noonu ñuy dox waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu dëpp ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox ko lu may. bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëlël du leen wax lii wala lël lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek lu dul rek sama bëgg-bëgg bëgg bopp yàlla moo ma xëy rek ci loolu man def ko te yàlla ma ko sax mën ko expliquer am na ñu xamee woon pour seen bopp moo ma xëy ci loolu ah président ne waaye rek yàlla ko xëy ci loolu bu waxtaan waxtaan mu ne ma léegi jëfoo ko ci ay ministère de l'intérieur ñu ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon

asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission tey jii di mardi le 18 juillet 2017 soxna Rama Diagne asalaamu aleykum wa rahmatullah waa njawat aleykum mbaa tàngaay bi defu la ni ñun day dawal daal ñun daanaka bu ñu waxee sax yàlla la France daal tàng na ah. sax tool yaa ngi ay am na fi ay tool yu ciy lakk tellement que sol bi di ko sentir xam nga ñun comme li ma la ko wax rek amuñu tàngaay buñ ci gisee lu tuuti rek dañ koy yokk alors que ndeysaan suñu mbokk sénégalais yi ñoom loolu dañ ciy andi ci reer dañ ko miin dañ ko tul hmm. motax buñ leen di teg lépp loo xam ne rek dafay nuroog safara man dama koy xaw a bañ parce que déjà on est servi boo xoolee on est servi ci ci atmosphère bi li ñu indi maanaam am yee lu Sénégal seen doon mel ni loolu la ñu mérité ndeysaan ñu may ñu tuuti li ñuy wax ajjanan njawal tuuti tuuti ñu won ñu boog misaal bi duñ ko def maa ngi nuyu képp nak lay ñaanal yaa am yaa ngi tool yi jaam dama lu na rawaane rek que di daan doole yàlla na yàlla ak yonent ba sëñ Tuba taxaw amuñu seen yéen a tout lépp li ñuy wax mais yéen ngi toog ci ñu déglu njawaar maanaam yëg dafa dafa nekk lu doy waar ku rek yëpp rek surtout rek yaakaar rek Sénégal yëpp maa ngi leen di ñaanal daal yàlla bu yàlla tas seen yaakaar amin ya rabbal yaw ma ngi ñaanal ñi nga xam ne ñu lacc ci hôpitaux yi actuellement mën luñ seen bopp dara ñu xaar ñu la ñu di leen nekk leen lo ay ordonnance soppi leen ñu yelwaani ci mbedd yi manque d'hôpitaux manque manque de manque manque d'eau njawal sénégal est ne manque pas dara yépp fa manqué loolu wax ni na ko yàlla dal na ko yàlla ci biir Sénégal yi koy muñ muñ rek tawat seen ak seen seen ñàkk pexe seen dëkk boo xam ne bii tey waxatuñ ko kon tey xeex nañu loolu bu yàgg njawat dañuy yóbbu maanaam nag buñ ko gëstu kenn liggéeyuñu fit wi la ñuy yóbbu li ñu ragal li nga xam ni moom la ñu ragal moom la ñu teg muy li ñuy wax kaso yonent yàlla kaso moom yal na ma yàlla baal ci ak gor mun ci nek ndax nekkin wa la ngay bañ ragaloo ko waaye nekkin wa waye ki ka ragal ba di len ko teg jiixi jaaxaa rek ma napp gaay yenn saa yi dafa tibb nañ waxante dëkk dañu xoo de ki la bañ la man ko la man nga jox gi nga ni ko hmm. kenn dara jox ay na ñoo bokk di liggéey suma la suma ma bëggee jox yenn yenn domaine dama nga la jàkk na la njabam nga ni maanaam man la jóoba juba loolu sama domaine mënuma ko daal ni mi yow ki wax sa boppam nga ni yéene dama ko comme kenn waxu ci dara sénégal wax ni jar dama koy jël mu dikk nag won la li nga xam ni mii lii la lii la bañoon mu am mm. moom daw na lii mm. moom daw ko de ku dégg waxi nag daaj daw na lii mm. nee na la kaay am mënuma ko te fii nga ma teg yaakaar naa ni boo ma fi bàyyee dinaa dem nga ni déet damay seet mooy sama doomu xol nga ni déet damay seet moom moom moom moom naa ko ko jox mais nag Sénégal ñawat ñaata métier la ñu jox nit ku ko moomul ñawat on va en fa ñaata métier ñu jël nit ku ko moomul parce que ma sàmba ma dem ba kii neex na ma parce que kii daa rafet parce que kii doomu diw la ñu bëgg a rek hmm. assemblée nationale bi ñawal mu ngi koy wax assemblée nationale bi il suffit simplement nga mën a wax rek ñu saw lan mi rëy na rek nga daal di dem moo tax loo ci gis doo ci gis sax hmm. doo ci gis dara doo ci gis ndam parce que simplement damaa yaakaar ni man Rama Diagne gëm naa ni nit ku ne da nga koy teg à sa juste place bu doon loolu kon ma yeewoo fa mhm. waaw nit ku ne da nga koy jox à sa juste place li mu moom ak ni mu ko defee bu ko defee bu demee bu yayoo yay mhm. njawan njaay njawan jóom dégg ma naan la njaay ay boo ma sant lay tey njaay soxna Rama waaw soxna Rawa maa ngi xasaraay ay boo ma sant la tey yi nga ma tooñ de. non Ndiaye la sant xam nga rek lu ma wax rek sama xel day dem ci Ndiaye yi nga xam ne lekk rek la fi nekk njawal njawal ngay tàng moo tax man la njawal Ndiaye waaye nag doo ko bañ ndax sant ah, comme ni ko nangu te a dama lay wax rek Sénégal buñ dee xool rek. xool rek sant loo Njaay. la tey Sénégal ñëwoon buñ dee xool rek buñ tegoon du nekk. teg ko baasam rek problème bi am am njëkkante du am kiiroo mais sama doom patron la kii de moo ma jàngaloon kii ñoo dëkkoon mosoon na maa may di loolu rek li nit ñi arrêté waaye sax da ngay dem Sénégal en vacances di la xanaa amoo koo ko ko xam xaaral yow ma boole laa kii kañ lay booleel kat. bo moytul moy moy balé buñ tup waye xam nga fa nit rek koku mo ko yobbu yow sa affaire fañ ya war nañu di xol mérite mérite ki daf ko mériter ki hmm. ki liat yi mu am manam jang na ko ba jot na ko kon sénégal dina jëm kanam parce que fi lolu la dégg wa wallahi lolu la lolu tax biñu fakassalu même buñu jémé fakassalu sax def lo xam dañu gis da fay feñ lolu nak ñoom ay ané ñing koy xex njawal pendant des années ñing koy xex diko xex diko xex parce que tout simplement defu ñu nit ñi ci poste bi nga xamni fa lañu wara nek hmm. waaw buñ leen ci defoon kenn ku nekk toog sa place Sénégal dina avancé jawal xoolal rek pétrole bi ni ñu ñu ñu ñu nar a rombee xoolal rek li bi nga xam ni dañoo ñaan ba yàlla may ñu ko sëñ Tuubaa may ñu ko ñu wàcce ko ci àdduna mu nar ñoo romb njawar hmm. ngeen ko na ngeen ko fekkee jàmm ci dara ji sëñ Tuubaa Mbàkke man di gën ko fekk yàlla nañu ko fekk yàlla ngeen ko fekkee mais man gëw ko parce que dama ne la retard bi dañoo xaw a yéex yàlla dañoo xaw a yéex dernière la mën yàlla ah yàlla yàlla mën na def ñeen waaye ñi ñu jiite ñi ñu jiite ñi ñu jiite ñoom ñoo koy soxorante ñi ñu jiite ñoo war a ah, xool ñi nga xam ne bii mën nañ jëm Sénégal kanam mais da dañuy jéem sax woon xara benn ingénieur bu ñu nit ku ñuul kee di ingénieur tey ma santale ko Diagne monsieur Diagne mais da jàngi woon na xaaral ma laaj ko déedéet il faut ñu fekk dem seet yi monsieur monsieur monsieur monsieur le roi kooku daal xaw na xeeb xëy na moo koy xam loolu moo ñuy retardé nañu bàyyi gars ñu ñu liggéey suñu réew mi ñëwaat fii laay hmm. ma ñaanal ñu tëdd ci kaso yi yal na leen yàlla taxaw génne leen foofu ngeen nekk parce que fi ngeen nekk buñ ko doon wax nañ ko ay ay loo bi la di ngeen xam ni metti na buñ ko doon wax nañ ko ay ay loo puisque man gëm naa ni amul sénégalais boo xam ne ci ñi ma ko war a wax ku war mën a tëdd kaso ñu nekk ci gouvernement bi tey di salaire yi di bañ kaso ñoom lu ñu deful moo tax buñ naan diwa diwa sàcc mu la man je dis non je dis carrément sàcc yi ñu ngi ci biir dëkk bi ku na nga yëkkati sa loxo barke borom Tuubaa makki bu fekkon dañuy ku ñu ne yëkkati vous yalla soppi la leen nga gis nga ñëpp dañuy ku ay kuti wax li ay kël parce que ñëpp a sàcc ñëpp a sàcc du ministre jusqu'au président de toutes les femmes képp ku dugg ci politique di nga coppati pour mën avancer Sénégal moo amul mentalité xaaral ñu bokk li ma sàccandoo jéem a defar sama avenir kat balaa ëllëg balaa ëllëg ñu may wàcce may torox

kaddu gaa ngoog jawab je préfère ne même pas vivre ken gro moy ngén di employé naan émergence émergence vous ne valez rien que fi que fi te yalla ala soxna dama mer na way assalamu alaykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbok auditeur yi ni ngi dellu wat fi tay ci sen numéro 2 ci benn semaine bi euh danaka gëj nañu ko def waye mbiri ni mu teddé faaw ñu def tuuti effort ah, ngir mën a waxtaan ak xale yi ak ndaw ñi mën a seet xëy na éveillé conscience lañ ciy jublu waaye waxtaan la rek fàttalu wante wane ay lëndëm lëndëm moo waral ñu dajawaat tey jii insha allah di dajawaat suba insha allah di dajawaat jeudi may invité ma ci dinaa ci invité nag ay ay candidat comme ni ma leen ko waxee Euh, ay candidats yoo xam ne dañoo def la donation symbolique pour ñu mën leen a ubbil rajo bi dañuy dem ci ay rajo ñu leen di charger ay xaalis yu bari te dañu koy def te ñoo ñu ñu ñu audience de fi ñu ñuy dégloo tamit du benn du benn place ñuy wax ñëpp ñoo xamante ne ay candidat lañu nanu defal donation symbolique ñooñu dinañ leen ubbil rajo bi di waxtaan ak ñoom ah, ndax liste 47 liste ñëpp màbbandoo naa la invité ma invité ma invité ma mel ni tribune plateau la boo xamante ne da ngay ñëw rek wax sa soxla xam naa ñii ñoom dañoo yee rajo rajo bi ay milliardaire lañu wax nañu ne dépassé nañu niveau animateur man je suis journaliste dama jang école de journalisme dama bëgg des fois des fois dañuy bëgg sax di nopi ci diplôme yi am man dama jang ci université américaine ba am sama bachelor en sciences politiques am ko en linguistique am minor en journalisme te je suis infirmier je travaille pour l'état de la Californie nekuma ci tiaxante de je suis pas dans le besoin alhamdulillahi rabbil alamin duma ma animateur su ngeen di seet animateur dem leen ngeen wuti ñoo xamante ne dañuy perte seen temps pour rien Sénégal rek lay bu fekkee perte temps la Sénégal rek lay pertal sama temps day leen leer parce que des fois ay nit dañu lay gis rek sa tour bi nekk turu africain pur rek tuddloo Jean Amadou wala tour bu làkk turu tubaab rek doo wax di prononcer de temps en temps ñu ne voilà kii moom jàngam soriwul xamna ben benn nañuma bal geewel baal yi rek la fonk ki geewel la da nek ci radio bi rek meuna wax xaaral ñu dem rek déedéet je fais du professionnalisme ta xam ngeen ko des fois il faut ñuy leeral mbiri pour nit ñi xam ñun duñu animateur tollootuñu fu ñuy wutee naan ñoo interviewé diw ak diw ak diw ak diw ils sont tous passés par ici et ils continuent à nous solliciter day leer nekkuñu ay caaxaan nekkuñu ay wut kuy ñaata nit moo ñuy suivre sunu baat tamit ku nu gisul dégg nga ko ku gisul soxna Rama dégg nga ko gisul Ahmadou Diop dégg nga ko ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñooy intervenir ci rajo bi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax succès bu nu am ci yàlla la yàlla moo ñu dimbali waaye dañu koy fonk de bu la yàlla joxee dara danga koy fonk soko fonkule mu genn sa loxo daanu dem Anu koy leral ñen ño xamantene des fois dañu ñuy tangase waye des fois nag ñu fàttali ñu fatale ñu ah te <laughs> lu ñuy ñàkk day sen président yi ngeen di ro di roté budul won fond politique du ëpp kenn tekki tekki ci réew mi ñuy sant yalla bu baaxa baaxa baaxa Euh, di baalu ak ñépp di leen nuyu di nuyu waa Facebook yi leen ñaan ñuy partager vidéo bi bu ñu ko déggee euh, di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Espagne waa itali surtout euh, di nuyu waa waa France ak ñi nga xamante ne aussi ñoo nekk fii ci États-Unis rawatina ñi dëkk ak ñun sosoo ak ñun muy waa Los Angeles ku ci nekk ñima xam ak ñima xamul ma ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen baalu ak li ngeen ñu li ngeen ñu xam sax des fois xëy na ngeen dégg loo xam ne dañ leen wax ne wax nañ ñu ko ngeen xam ñu rek am ci ay problème ñu ngi leen di baalu ak bu baax a baax a baax a baax sunu ligne nag ñoo ko tracé di assumer lépp responsabilité boo xamante ne euh, dañu ko cee def ah, di jéggalu koo xamante ne attan ko nga ñi lay ñaan nga ñuy dégloo xel te ba ñëw dégloo xol xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk comme ni ma ko waxee démb am na ci ay xeetu tur yoo xam ne boo ko déggee rek xam ne fii la ñu cosaanoo yoruñu turu tubaab yoruñu turu tur turu naar tur sénégalais la ñu yore turu africain boo ko déggee rek Afrique nga koy mën a situer doo ko situer feneen ñu xam ne kon réew mi ñoo ko bokk te réew dañu koy bokk maa ngi wax démb ne. réew yi nga xamante ne ci la ñu dëkk di ci judd bu ñu doon xool ci suñu tur yi du ñu fi jariñu ndax santuñu Trump santuñu Bush bu fekkoon nit ñi dañuy xool ci yan xeet lañu bokk kon fii nii bale tali sax duñu ko def ndax mexicains yi ñoo koy def ndax ñoom ñooy ñoom ñooy seen next door neighbor mooy maanaam ñooy ñi nga xamante ne seen voisin immédiat kon ñooñu lañu koy defloo bu doon réew mi du seet compétence kon sénégalais yi duñu nekk ci ay place yu rëy tey du fi liggéey ñii doon ay ingénieur ñii doon ay docteur ñi doon ay CPA ñi yor ay qualification ay avocat waxuma avocat truand yi de am na ay avocat truand yoo xamante ne dañoo nekk ci réew mi te bu ñu demee ba nekk avocat rek avocat émigration la ñuy nekk dama ciy profité sànni sama xeer parce que am na ñu bëri ñu may wo di may wax ay turu ay avocat sénégalais yu nekk new york di triande sénégalais rek dama ci profito motax tax avocat boo aayee mën plaider do dem ci ay émigration parce que amérique lañu nekk ñu né ñom africain bu ci jang rek rek ne émigration ngay def ndax ngay arnaqué say moromu émigré bo lekkee sen xaaliss duñu la mëna yobbu tribunal parce que amuñu kayit ay riba rek ngeen di dunde te du ngeen am dara lu baax bayiléen ko bayiléen ko ay avocat bu baax day dem di plaider ñoo xam ne dañ leen a jiiñ lu ñu deful ñu ñu tëj ay kaso te defuñu dara ñu ñeem leen a génne ñu ñu jiiñ ay ray ni te defuñu dara ñu ñu génne leen ay dem immigration rek di lekk xaalis nit ñi ku la wax rek nga ne ko yónnee ma 2000 dollars 3000 dollars nga coob ko après nga xam ne du mujj fenn nga leen di dawloo nanu ko bàyyi sénégalais yi nga xamante ne nag corps de métier yu ne ñu ngi koy am ci réew mi c'est parce que réew mi dafa tëddee njaaxaandaay compétence lay seet compétence soxlawul nga xam gouverneur bi sénégalais yi boo leen doon laaj ñi dëkk indiana kan moo seen gouverneur bu doon woon vice président du nu ko xam de ak ñeneen ak ñeneen parce que réew mi sa compétence lay seet ak sa connaissance sa expérience seetul kan nga xam ban famille nga bokk daanaka ñàkku fi nag am na waye loolu doonul luñu accentuer ñun ñu nekk ci Sénégal bala ngay am dara rek comme niko soxna Rama waxé bo bëggé lijeenti kayitu judd ñu né la kan nga xam tel place So bëggé lijeenti carte d'identité kan nga xam ban place passeport nonu bo bëggé am permis de conduire kan nga xam euh, service des mines so bëggee def auto école dem na si sax ba nga xam ne business boo ko yoree businessu sénégalais c' est appelé à naka lañ koy waxee à la faillite business sénégalais parce que même kii di ñëw di jënd sa ceebu jën sax mu ngi seet kan moo la xam pour que ñu wàññil ko prix bi sunu business économiquement ñun dañuy rayante sunu bopp de économiquement waxuma le politique bi damay mettre en stand by waxu politique bi sax laa lay wax rek mais socialement économiquement ñun dañuy ray suñu bop so bëggé jënd fu mu toll ni ciébu jënd té te yi bëgg ko lool dañ ana sox ana ana ana ablay njaay mu ñoo ma nga ci restaurant bi dama nga ci restaurant ya restaurant code njaay nga dem fa dañuy sét intermédiaire njaayeen bu xam code ndax ñu wàññi le prix wala mu ñoo na la code moma yonne waaw may na may na la ko sax yenn say wallahi mu mais imaginez le Sénégal avec nos familles nucléaires mashallah. nga xamné ne cousins yi cousines yi nijaay yi bàjjen yi ku réussir bu fekkee ñëpp dañuy wéru sa kaw bu yagge nga suux boo ubbee service boo ubbi rek dañuy jéem sét naka lañuy jugalé affaire mbokk Té pourtant boy périr dans la pauvreté Do gis kenn hmm. ko la seet mbokk yaay njëkk a boo boo matee am jabar sax pour ñu bàyyi la ngay cagatu sax ci mbedd mi di jaay le petit vagabond duñu la may jabara ah, te pourtant da ngay nekk sax université kenn du la yéene doomam parce que amuloo tous kenn du gis futur Sénégal kenn du gis futur hmm. li média la ñuy gis mooy léegi léegi léegi léegi jooni jooni jooni jooni. faut savoir patienter dans kenn du kenn du jël grain. gas suuf dugal ko fa suul ko këpp ci ndox xaar mu am température normal bi pour que garab gi jeb bi bu jebee nga jubbanti ko ba mu jub nga protéger ko animaux yi bañ koo lekk mu passé adolescence dem ba romb ca kaw ba nga xam garab dootu ko euh, euh, animaux yi dootuñu ko mën a jot mu génn fruit nga koy nga koy lek kenn defatul loolu yàkkamti ak gaawle lek kamti rek nga xamantene ne kon réew moomu ñun ñooy rey suñu bopp te gis nga li ngay gis au niveau politique au sommet de l' état mooy li nga hmm. xamantene au niveau familial lay tàmbale doon hmm. na rama maa ci xam dara Li di xew ci kaw ngeen koy gis fii ñii di jël ay xeet di leen jiital di jiit ay copain ak ay voisin hmm. di leen jox ay poste de responsabilité bu ñu demee ba xamuñu la ñu seet ku la xam Mm-hmm. nga xam par remote le président bi di diriger su xamulay kenn ci benn domaine sax day laaj xaritam kan nga xam mm-hmm. ko wóolu kooko dem seeti benen copéom affaire bi mbirum copinage lay mujj doon yooyu ci borom diplôme ba deug ma nga taxaw tawee lolu lolu ci kër yi lay commencé hmm. ci kër yi lay commencé yaay yi di gënat le sen dom kan moma ci gëna neex kan moma ci gëna ki nijaay yi di gënat le sen jarbaati mam yi di gënal le sen seut sët lay commencé de favoritisme fofu la koy jàngee. nak la ñuy hmm. puniree nit ki njëkk a ci famille day day enslave ñi mu bokkal maanaam bu defal lii defuloo ko mu sanctionné la. loolu pini mais loolu la ñuy loolu la ñuy dund au sommet de l'État en ce moment c'est au niveau des familles. nous avons tout un système à changer. je ne parle pas de système politique. je parle du hmm. système social. nous avons tout un système à changer. te il faut que nous soyons patients pour mën koo hmm. changer parce que c'est pas c'est pas demain le changement hmm, il nous faut au moins au moins une génération Bon, xamante ne dañu leen di une génération bo xamante dañu len di yar ci bëgg réew mi fonk nit sénégalais ci bopam tegu ci fonk africain bala ngay fonk keneen kuy jëgaani ca benen réew tey bo demee Italie xolal bo amule, bo doonee nit ku ñu dañuy wax extra communautaire hmm moy yow bokkuloo ci communauté européenne bi bokkuloo ci. extra ci communauté bi dañu ci génn bokkuloo ci te pourtant fa nga dëkk de da ngay fay ay taxe ñu lay dag de. ñu non lañu wara def au niveau au niveau africain. te lolu réew mu nekk ya ko wara commencer sénégalais bëgg sénégalais sénégalais di consommer sénégalais sénégalais di yërëm sénégalais sénégalais di ñiimantal sénégalais di protéger sénégalais di ko jàngale nag ci ci ci ci école yi di ko foowee tu es mon frère tu es mon compatriote gars di ko dugal ci système éducatif bi nit ñi di koy wax bu yàggee ñu bu yàggee bu yàggee yàlla dimbali leen dimbali ñu xoolal américain yi ak li ñuy saay saay dañuy wax in god we trust mooy yàlla lañu wóolu xam loolu dañ leen di jàppee ah. caaxaan am na ñoo xamante seen dëkk in god we trust bi moo gën seen allahu akbar bi ñuy bind seen biir seen drapeau parce que doxewunu ko allahu akbar mooy yàlla màgg na waaye boo ko bindee te jëfeewoo ko du la jariñ tus lu ñuy dund la du ay symbole xolal ni ñu bëggee seen réew mi seen réew mi li muy bëri loo ci domaine boo ci dee seet rek ñoo ci excel mbirum caaxaan boo ci duggee da ngay def ne àdduna dootul jeex dama leen di jël référence lu bari dama leen di jël référence parce que référence lañu par excellence pour jël propos ahmadou diop moom dah, ndax tey ku ci nekk am nga sa yàlla am nga sa religion ñoom ñu ngi sax ci suñu bi ñu sax tey ñun ñooy bàyyi sunu religion bi nga xamante ne sax moo nu waroon a protéger bu ñu jàkkaarloog yàlla dañuy ñaan yàlla ñëw Amérique nday saan yi dañuy ñaan yàlla seen yàlla pour yàlla indi leen Amérique suñu demee nag ba mënatuñ fee ñëw mu leer la leen mënuñu fi ñëw ci la ñuy doog a bañ Amérique mais ñoom ñëpp seen premier choix seen première prière mooy ñëw fii nii nga xamante ne du building yu rafet yi de liberté bi la liberté bi nu lay jox liberté de choisir moo tax Amérique ak a bëri ay walliw billaahi wallaahi taalaay parce que mooy yàlla daf fi yomb sàcc yo lépp fi yomb lépp rek lépp looy wut luy caaxaan daf fi yomb su la yàlla dimbalee nga orienté wu ci religion bi rek booy dox ñaari pas di doon walliw ak ñoo bëri ay walliw fi gaa yu set nuru tubaab waaye boo xoolee bala nga koy xam ak juma jot rek nga dem nga dem ci jumaa yi da ngay fekk ay borom cravate ay borom mercedes ay borom bentley surtout fii ci californie borom auto yu seer yi nga xam ne ñii ay ndaanaan lañu sumi lépp ñëw di julli ajjuma te boo daje woon ak ci ñoom ci mbedd mi doo yaakaar ne julli nañ moo tax amérique buy nekk un pays musulman ñoom sax da leen di bett ah. parce que ñun ku xees rek da ngay defe ne tubaab la gars wat seen wat seen kii ba mu nice nga defe ne ay tubaab lañ ndekete ay jullit lañu ndekete ay jull ay tubaab yu convertir lañu lu nekk ngay gis ci réew mi ñun nag ñuy woowee suñu bokk ay réew jullit di persécuter suñu musulman yi ñuy daw chrétiens yi di leen làq dama itali Italie wala wala France France googu ay église ñoo ëpp ci li ñuy dimbali famille yu pauvre yi lu leer laa la wax dëgg naa fa de taxawàllu naa fa bokk boo demee Italie ak dëkku tubaab yi li église di dimbali nit ñu ñuul ñi sunu jàkka yi sax defuñu ko ndax gars yi dañuy ubbi ay jàkka lu ñu dajale ci alal yóbbu ko seen pays d'origine palestinien yeeg indien yeek waa Cachemire yeeg Bangladesh yeek waa naka lañ ak ñeneen lu ñu dajale ba asaka bi bari xaalis bu bari ñu jël ko yóbbu ko seen dëkk yi ci réewu tubaab yi dañ leen defois fois gis nga boo demee ci culture da ngay seet li ci baax nga jël ko jariñoo ko li ci bon bayiko fa dula jariñ dara ndax ñoom daanaka mo leen galankor ñun nak sunu rew yi tay lepp lo bëgg am da ngay sét kan moko da ngay sét kan kan sa mbokk bi la ci mëna dimbali ñuy jiital ay affaireu nijaay ak ay bàjjen nak ay umpañ ba nga xamantene ñi jité rew mi tay ci loolu la moo tax réew mi dox di parce que da ngay fekk que clé bi buntu le problème du moment Vous gis ku ko nga koy ci sa parce que système bi bu fekkoon noonu lay depuis cinquante six ans bu doon noonu lay kon yow do nek ci pouvoir bi bu fekkone ne kuy kan ngay dimbali sa mbokk nga koy sété kon yow do nek ci pouvoir bi kon Abdou Diouf du nek ci pouvoir bi Senghor defewul won nonou de kon même Ousmane Tanor du wéru sax ci ci Abdou Diouf bu doon système bi non lay doxé té légui fiñu tollu ni système bi non lay doxé pour la première fois dans l'histoire du Sénégal système bi ñëw di doxé nonou benn ethnie benn tribu benn bande de copains benn fils de ñu dajaloo di défendre seeni intérêt bàyyi l'intérêt général ba tey réew mi ñëpp di xëccoo kenn wóolootul sa morom daanaka tey boo dee wax ci mbirum sénégal nga doon journaliste am na benn journaliste baadoo la bu wor askan wi bu nax askan wi pour ses pour ses intérêts personnels bo xamantene mom moy mooy tax dunu la wolu da waxe ñu la la yow ni Souleymane Jules Chopin nga doon bëgg def santul dul na nako gaay xam Chopin la sant bayam sami Chopin lu tudd xamna ko bu baax ndax yag na ko gis yag essence ba ma mujjé Sénégal rek tok na wax ak mom mom sami Chopin bayu Souleymane Jules Diop santul Diop buñu sante bu neex bi buñu ko jël diko jox ku ne dégg naa fi sax bañu ko fi jiñ naan ko ay yonenti yalla sulayman ñi naan ñi naan yaay setul Lat Joor la bokkeeg Lat Joor nañu leer de suñu mam duñu bayyi ku juk rek maamoo ko ko nang soy juk di wax nek soy juk di wax nek politicien ñu wan la fi politicien bu wor askan wi ba tax ken wolotul wolotul ken te xol fu mu toll kan mo wolul ken ko wax rek mu ne comme maki lañuy def ndax maki moo këpp yalwaanu gaay de te maki Sall limu am sax xamu ko ndeysaan nekk un jeune juddu après les indépendances sax bu ko sama xol day tang parce que ñi juddu après les indépendances ño gëna complexé ño gëna complexé parce que xamuñu ay ñom Abdou Diouf yi sax même bu fekkee ne dañu leen def ay ay ay ay personne yo xamné dañu nek au service de la France ñoom côtoyé nañu tubaab bi te tubaab bi boo ko côtoyé ñaari mbir mooy mën a am ñaar rek du ñett ñaar rek soit danga danga koy xam-xam dooleem ragal ko nekk ci ginnaawam lu mu la wax rek nga ne ko yees wala nga xam ko xam caay-caayam xam ne kii ëpp la xel xam na kii ni ngay fayiree lay fayiree erreur yi ngay def lay def dàqu la jàng nga ñeme ko wut sa indépendance dal di yeureum nak sunu mam yi nga xamantene dañ leena a gaañoon quoi nga wara set nak yan moyen nga wara ya, nga wara jar jaar ngir enfin libérer ce peuple économiquement économiquement ci yoon yoy nga wara nga wara jaar mais bo juddo mosulo côtoyé tubab mitu tubab bi moy nek sa bop rek ni gis ci film yi ni film yi gaay buñu demone ñu gis ni Inde pauvre même bu fekke ne mo raw Sénégal waye sen population bu bari motax dañu pauvre de lini ño xamantene li ñuy dund ken mënu ko wax ñu nan ben théâtre kat bu tuddu xawma nan mo dafa rafet rek gaay di topé ko aéroport ba ki té day théâtre ah am ñak ñak xam motax hmm. nga xamne france mënu ta dem sans sénégal france hmm. mënu ta dem sans les 14 colonies mënu ta dem ñun ñoo garantie sen sen ci euro ñun ñoo ko garantir ñun ñu ñak fayda ne bobu nga xamne mom la mom lañ leen garantiré ba mu ba tax ñu ci euro ñom ñu jël monnaie boobu muy franc française éliminer ko dugg ci benn franc communautaire ñu ñuy konné di ñak fayda di wax france franc franc franc CFA ba président bi bërki demb mu nañu ngeen bayyi ciowli ta créer seeni monnaie def leen ni madagascar wala mauritanie te sunu président yi ba tey ñemewuñu ko de mu xass africain yi ne len wañi len seen jur yi bari ngeen di jur ndax mom nangu du am dom de dafa fekk ben dafa bekk ben màggati tuba bo xam amna ay dom ba pare mu takku ko mom dotul amati dom léegi kuy am dom sax da nga koy gêné <coughs> nee la du am dom affaire am la nak ñun nak ñun nañu am ay dom nañu am ay dom motax may wote

fépp fu américains yi teg tey gis ngeen ko commencé nañu seen seen seen euh, seen bateau de guerre yi yóbbu ko ci Afrique am na dëkk yu ñu signé ay contrat ba yóbbu fa seeni militaires yi di leen train maanaam di leen di leen entraîner waaye kan ngay dégg fii muy xiiru Chine bu ñuy def élection américaine yi fii dañuy dañ ciy boole Chine li leen amal solo dañ ko ciy boole te Chine saa yu nekk ñu tudd ko défendre Israël sa yu nek ñu tudd ko immigration sa yu nek ñu tudd ko ci mbirum étranger yi loolu mooy yi nga xam ne dañu leen di tudd saa su ne parce que da leen intérêt waaye kan mooy kan mooy xiiru Chine booy créer ay bombe da ngay créer ba sonn waaye doo leen jeexal de parce que ëpp nañu milliard léegi nag comme que ñoom bëgguñu nit ñu ñuul ñi bu ngeen demee da ngeen koy boole ci seeni politique parce que politique dafa bëri xeex politique dafa bëri ay stratégie bu ñu mixé famille yépp ku ci nekk am ci benn wala ñaar su kenn dox dox loo sax ngeen jox ko juróom léegi ñu commencé ñu considérer léegi rek ndax ku raciste raciste boo yoree sëtu nit ku ñuul di nga di nga soppeeku danu ko ci boole waaye bu ñu gisee tubaab rek commencé commencé sukk ay booy ay entrepreneur ñooy jóge France buñu ñëwé rek ñu ñu duggal leen ñu rencontrer le président Macky Sall buñu ñëwé rek ñu duggal leen ñu dem rencontrer Amadou Ba ñu jël yépp tek ko ci mbirum mbokk ak intérêt bu ma am ta alal bobu ñuy sàcc yépp duñu ci rénover suñu estati ñi ngi ci wax demb duñu ci rénover suñu estati duñu ci rénover suñu hôpitaux yi suñu hôpitaux yi xam nga demb amna sax ku wo mako ci wax xam nga buñu démé ba nga xamante ne DGCMU nee nañu couverture maladie universelle koku moy fièvre dem hôpital ñuy def ay erreur médicale ci mom wala mënuñu ko fajj mais est-ce que vous imaginez comment c'est grave est-ce que xalaat ngeen lii ni mu grawee ku jiite koo xamante ne dañu naan leen yeen dañ leen a couvrir médicalement bu ngeen demee faju gratuitement koo koy gérer mbirum faju maanaam mbirum Sénégal boo nee ministre de boo nee ministre de la santé daanaka moo ci tegu ndax ñu bari ñuy faju ci moom nga ñuy ja nga jaara ah. xale yu feebar yeeg màgget yi feebar yeeg ak cas mm. sociale yi nga xamante ne da mënuñoo faj ci moom lañuy ñuy jaar kooku feebar yóbbu ko di docteur yi di di di patiner ba rey ko ko rey parce que am na ku ma woo démb di ma expliquer mhm. ne ma te li mu ma wax mhm. dafa am sens daf ne ma Cheikh mhm. Mbeng boo demee parce que nee na ma première opération bi ñu def amoon na consentement deuxième bi amu ko mu ne ma est que nekkul ne docteur bi dafa xam ne dañu koy évaluer évacuer France mu bañ ñu gis hmm. erreur bi mu def mu ko muy profito di rectifier di ko opéré waat ngir mëna rectifier erreur bi mu def c'est possible ah. hmm. soxna rama hmm. gis nga mbirum docteur mbirum mbirum mbirum liggéey ci ci service médicaux yi ga connaissance bokk na ci mais xam nga lan la affaire bi affaire bi ay matériel la de matériel affaire bi matériel kese la kese kese tey ba tey jii fi ñuy liggéeyee am na ay infirmier yoo xamante ne boo leen joxee mm. stéthoscope mënuñoo génne euh, blood pressure nit mooy pression artérielle mënuñu ko génne parce que matériel bi dafa pour temps mooy génne vraiment lu normal compte bu mat bi sa cœur li muy battre moo koy génne waaye boo amee problème mu déglu doo ko mën. doo ko nga mën a déglu pour xam bit bi fan la commencé. doo ko mën de. dafa laaj experience. waaye léegi dem nañu ba nga xamante ne xam nañu du ñëpp ñoo ko mën ñu créer la ay stethoscope yoo xamante ne c' est électronique nit ñi sax léegi dañ koy am seen kër yi bu ñu yeewoo suba cek seen <laughs> blood pressure seen pression artérielle xam ñaata la hmm. mais loolu matériel la dañoo dem ñii dañuy développer développer développer ba jël ay médicaments yoo xamante ne dañu ko jël tuddee ko over the corner OTC ne la bo demee jarul ngay wax ak pharmacien jëlal nga consommer mu fajj lu bari lo xam bu doon Sénégal la da ngay rang ci docteur ah docteur bi lek sa 30000 dollars 30000 francs CFA. ba paré dila la jaabanteloo au lieu que ñom sen milliards yi ñuy sacc ñu duggal ko ci wër wëru askan wi imaginer bo fi nga wacc ndakaru njaay ba xol policier yi wala douanier yi xol da ngay da ngay tit sax ci ngay doga xamne yegg nga senegal ken du xam lu nuy nuru lu ma baal te loolu yëpp ñàkk a len ken kenn ci ku ci yek ku ci nek yaangi sox ak ben febar même ci politiciens yi ngay gis ni ha ah. ku ci nek yaangi sox ak sa ben febar ha ah. leg dañuy dem ba nek kilifa rek febar bi daanal Len, parce que sen anticorps yeeg antigènes yi nek sen yaram yi yu salte ak vie bu normal lañ doon dund léegi bu ñu demee ba nekk nag nekk ay patron dugg ci ay table yoo xam ne dañ koy salte dafa salte ñu commencé di loqati seen bakkan yu salte yi ba mu set seen yaram yi nag commencé nag ne ah léegi nag amatul moyen de défense wàññeeku na nekkatul ci salte bi xam nga nekk ci salte des fois da ngay immune rek yi daaru feebar te ñu ngi ko doon sooxaale légui nak lolu pour éviter ko dañu wara commencer topoto purple la ba peuple muy set nit ñi di am ndox di raxasu bu nu duggé ci toilette yi lolu di jar wax nit ñi di am ndox di naan ndox mu sel ndox mu set ndox mu amul salte waye ko xamantene amul lo ndox bo naan bu duggé ci bi dina jël ndox mom di ko diko du ko raxasoo ko ci ah. da koy da koy sakkanal toilette yo xamantene top may wa kër gi économiquement ñu développer pour que ñu toppatoo seeni toilette feebar yu bari feebar yu bari ci foofu la ñu koy jëlee feebar boo xamante ne ci défécation lay jóge moo ëpp ci li muy daaneel sénégalais yi feebaru salubrité la ñu am insalubrité moo ñu indil ay feebar corner maanaam euh, coin boo dem ci réew mi ay mbalit la ñu fay dem la ñu fay dajale hmm. parce que amuñu auto mbalit bu koy jël té pourtant buñu miliar dépassé won ben milliard am ay auto mbalit yu jël ki ci quartier ndax nit ñi ngi fay taxe de ak ay impôt pour lolu la pour defaraat talibi bi organiser wat société bi waye bu féké né luñu rat ci ñun ñom buñu ko joxé ñu jël ko andi ko bitim réew mais suñu réew yi do am dara motax ñun amuñu dara dara dara dara dara ba dara bolo jeex dara amuñu ko ay gaay yu siluy sa siluy sa rek ay fas ñoy nek ato lo ci yegul amna ci ay fas yo xamni ñoy nek auto malik amuñu dara dara amuñu ko ci sunu rew mi ñu tout ñi nga fi gis ñuy siluy sa siluy selu bitim rew lañu dem ray sen bop bay bëgg dé sonu dal di ñibbi Sénégal ubi fa benn business bo xamantene business bi day dégrangolé continuellement ba kay suba duñu amati dara ñu takkaat seen bagage delu ci fañ ko jël ji won wala ñu toog fa rek dee parce que réew mi du affaire bëgg Sénégal affaire organiser réew mi la gis nga soxna Rama mm. nit fu muy dëkk dafay mm-hmm. bëgg bu feebaree ñu mën koo faj immédiatement nekkal milliardaire bëril alal fii ak amuloo ku la mën a évacuer te feebar buy ñëw dalay bett ci deux jours lalay lay ci réew ma buñ lay évacuer boo dëkkee Sénégal fan lañ lay évacuer lu dul Fann wala Abbas Ndao wala le Dantec wala principal principal bu jamono jiy jotee nee nañ leen mois de juin ba octobre ku nu fa opéré boo matul dana nu la rey parce que ay internat français ñëw fay ñëw di di jongler la vie des gens ay nilaar ay nilaar lañu ah billahi booy dem di jàngi bokk ak ñoom école ngay xam ne ay nilaar lañu ay nilaar bu ñu ñëwee demuñu demuñu hôpitalu Paris demuñu hôpitalu Strasbourg demuñu hôpitalu Marseille waaye dañu Afrique la ñuy ñëw di volontaire ngeen def ne dañu leen bëgg fekk opération critique yi ñuy def te mënuñu koo def ci viwu français ñu ne ñu ko def ci bàyyi ma yu ñuul yi nekk fële ngeen ñëw amu leen xaalis ñu ne dañu leen di opérer gratuitement opération hôpital principal naka nga fa mën a opérer nit gratuitement motax nga xam ne loolu wóorul loolu mooy volontaire de santé xam nga ni wallaay nga ñëw signé loolu ay këyit nga joxe eh, eh, sa vie gars yi ci zongala si ku ku jël taal laal pas morom eh ni nga dagee foofu du foofu mais grawul mais grawul ne dis rien oh, ya, on y va ya, c'est c'est des ci ñun lañu jàng c'est ma la wax lii c'est des sénégalais ñu avancé ñu bàyyi leen ñu def ban médecin ban médecin mooy jóge sénégal naan day dem fenn di pratiquer ci benn kii xanaa médecin yi nekk yi nekk France sax du ñu leen wóolu bu ñu nekkee ci benn classe boo xam ne benn nit ku ñuul moo fa nekk moom la ñuy gën a ñàkk wóolu ndax nit ku ñuul kese la te pourtant mooy jël pee ci classe bi mais duñu ko wóolu bu ñu jógee indi seen i milliards yi indi leen Sénégal ñuy opéré nit ñi rek di leen rey hmm. léegi nag deewu Cheikh Mbeng bi yal na ko yàlla xare àjjana c'est une victime yal na ko yàlla baal ay bàkkaaram xare ko àjjana amiin yaa rabbi deewam bi war nañu ci jang de ah ñaata yoon war nañu ci jang de hmm. léegi nak ministre bi genn na neena dañuy def enquête Né dañuy ñeneen dañuy def enquête ñeneen ñu ngi enquête ga yoy di set fan la fan la fan la mbir mi fan la mbir mi mbir mi nek jang leen nek DG wala PCA wala Macky Sall jox la poste bu neex bu mu tax ngeen defene bokku len ci ba peuple bi de de toute façon sen famille yi ak ñun ñoo dëkk te xam nañu ci famille yo xamantene ne ñu te seen i baay dañ koy wax PCA wala seen dom doom un membre de la famille de toute façon te dañuy continuer di vivre le même niveau de vie bu ñu defaree réew mi nag te wuñu quinze millions la nu la wax quinze millions te quinze millions yi leer na leen ne cinq millions yi ñu nga dëkk bitim réew ñaata ay cheikh meng ñoo dem te mënu ñoo wax allah topato leen réew mi nañu jël seen alal yi ñuy sàcc man Macky Sall dama def Macky Sall dama def noonu bu ñëwee kii mooy mooy régler Sénégal mais ba ma koy gisee muy jël ay doomu rakkam yi nga xam ne famille yu maram say fal fay say sall bu ñu doon seet ci famille yi ñi ëpp ñoom ak ñoom ay dun njaay rose ñooy ñoo koy joxante de lu leer laa la wax xam nga dun njaay dañ koy làmmi ñu naan ay yàlla na ko yàlla xare dañ koy lam ñu naan ay nangami dom la am ay 30 dom billahi marem fay sal sa famille ñi mu bay baay bu ñu leen compté ñoom ñëpp bu ñu matalee 30 jege nañu ko nga bëgg jël ñep ñi nga yobul len ci ambassade yi ñii nga jël len duggal len ci duggal len def len ay conseil yo xamné duñu conseiller Macky Sall ñu len di fay ay xaaliss nga xam man bama gisé lolu loolu parce que man dama leen a xam dama leen xam ay atangi ni ma ngi len di wax te duñu duñu tegg limay wax bari dom nak ci ku bari xaaliss lañu ko xamé won ñom seen baay doonul won borom alal donc buñu bëggé tay ñu bëgg leen def borom alal parce que ñoo jité réew mi nga xamné ne yëfu seytaane nga dugg hmm. baayam da doon simb kat la gaynde gu jigen la won di simb loolu ñepp xam nañu ko xam nañu ko du mbirum xaste dama bëgg a wane nit ñi ne ci ñun lañu jóge ci sunu baayu chauffeur yi sunu baayu jaaykatu gerte yi sunu baayu raxaskatu mbalit yi sunu baayu jëlkatu mbalit yi ci yooyu lañu jóge nanu ko xam bu la yàlla jëlee tànn la ci ñooñu yóbbu la teg la ci kaw li nga war a njëkk a def mooy ñi fa nekk te mënuñu faa jug te ay ana ñu nekk fa ndax bu njëkkoon da ngay doon doomu kilifa doog a accès à l'opportunité yow yalla dimbali la jele la ci ñele pour jangalel da nga wara jele fa la ñele ñu nek ñu ne bayu Macky Sall gardien la won nga fexé ba améliorer la vie des gardiens ay jangat la nit ñi dañoo wara jang ci ndogalu yalla yi ñu ne la sa yaay da ron jaay gerte caaf dimbalil maire yi amul assurance liggéeyunu tay jaay gerte caaf nga dimbali len économiquement ñu accès am accès sax au crédit dimbalil nit ñi te loolu wuñu quinze millions lanu milliards yu nu sàcc mun naa dimbali sénégalais bu ci nekk billaahi nga am nga am un million gratuitement nag même bu fekkee c'est une fois dans ta vie sénégalais bu nekk li gars yi sàcc yóbbu ko depuis Senghor Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade mii mujj ak gars yi di sàcc tey bu ñu ci tegoon loxo parce que alalu sàcc moomu loo sénégalais bu nekk mën nañu la jox un million même les nouveaux nés mais ngeen koy jël bàyyi ko bàyyi ko ak tubaab yi ñuy defar seen autoroute yi xoolal man sama koñ fi saa yu ma génnee chaque année maa ngi la ko fi wax soxna rabata dañagul chaque année gars yi jëlaat tali bi raaxaat ko ta tracewaat ko su ma fiy daw du ma sax bëgg a ñibbisi damay bëgg di dawal ci oto bi rek bañ a wàcc ndax day neex macha allah wala de boo fa doxee moom sa ndigg rëcc Sénégal. depuis 1900 combe ñuy réew mi di ko yóbbu di ko dénk tubaab yi ñu ciy tabax ay hôpitaux sama ginnaaw koñ rek tabax nañ fi hôpital bu bees. wala Mali ñaari hôpital yoo ah. xamante ne distance bi matul matul un kilomètre. fu ne ñu fay tabax ay clinique nga yendu hôpital doo ko gis nga def ay ñaari fan. allah ñu bëgg a di wax ay évacuation couverture maladie universelle directeur bi feebar. Macky Sall nan da koy évacuer xam nga lolu xam nga lolu shame on you Macky Macky Sall bëggul réew mi Macky Sall bopam la fi nekkal na ngeen ko xam man nak bañuma Macky Sall parce que dañu doon and ak mom ñuy xex keneen ko xamantene di say la doon def moo andi ci li ndax yëfu say say weesuwul nga fekk ko xamantene mo fi mujjé ñew nga def ko numéro uno ñepp di laaj di créer des frustrations di créer de l'injustice au niveau des partis politiques fii ak jëluñu réew mi ci compétence zaaru Macky Sall yi rek la créer parce que Sénégal dafa am ño xamné dañu mëna siboru xam nga siboru amna ñu ko mënul zaaru Ahmadou Diop yi mënuñu siboru amna ay nit ño xamantene mënuñu siboru mais le système qu'on a implanté au Sénégal ne fait que créer créer des siboru kat gaay dañu lay ramal. soo ngelawalee sax ñu ne ciuray nga tal billahi wallahi taala bobu graw na nak non c'est vrai ñun dañuy créer ay hypocrite suñu société bi niñ ko téggé c'est pour créer des hypocrites te fii ak hmm. deñul ay genre Macky Sall rek lañuy créer te Macky Sall hmm. ben la ci échantillon la rek waaye bari nañu de ak ñu ci bari te ni koy défé ci sénégalais buñu soxla lanu koy défélé tuba bi ana ñaata prêt noo ñoo nekk sénégal ñuy ubi ay entreprise yo xamantene ne ay milliards la ñuy jël muy dem à l'étranger ay tubaaba ko moom waaye sénégalais bi day nangu pour tekki rek pour am dara rek am lu mu lekk rek mu mu mu mu boot libaane bi utiliser sa nationalité pour que ñu implanter société boobu ñu koy fay am na ñoo xamante ne turu société seen tur lañu nekk waaye amuñu ci dara dañuy bañ nag mu am benn Ben lo xamantene day feñ te ñepp diko gis ñu leen di jox ay xaaliss loué leen appartement yi rafet pour que ñu continuer di supporter uh-huh. société bi ñu ki Sénégal loolu soxna Rama bari na fi de man amna ñuma ci xam mu doon ay ngandi société ay milliards ben kiko endorsé c'est un sénégalais ñoñu di sacc xaaliss bi di yobbu Liban dëkkuñu sax Liban ndax Liban jàmm xamu fa jël doon ay libanais dekk France luye turu sénégalais bi ak nationalité ba implanté fa ay restaurant ay hôtel soxna Rama ay lu né lu né ha ah. sénégalais ba mom mom moom day. ay société massage ay discothèque billahi li ma lay wax man luma la wax rek mënoon naa la gënal ay exemple parce que limay may jot ci information un cent bi sax la génne guma ko damay valse nii rek bu ñëw ma dóor mais lima ci xam waxaguma ko de motax damay xaar bañu tontu ma duñu ma tontu nak amna ñu ñuy tontu man duñu ma tontu xamna dañu ma xeeb waye nono bax ci man léegi nak élection législative yi jotna ma sha allah mm-hmm. deux semaines ci dess inshallah allah ñu ko fekkal jàmm distribution carte yi lérul amna ñuy dem mm-hmm. duñu jot sen carte mm-hmm. ni ñu koy yëgele nit ñi baxul amna ño xamne duñu jot sen carte ñi dëkk mm-hmm. Matam ñu leen koy yóbbul Ziguinchor ñi yóbbu Ziguinchor ñu koy yóbbu Ndakaaru Njaay mixé affaire yi ay ñaari nit ñu defal leen dupliqué. waaye waay ñoo ko tey. boo voté fee contre ñoom ñu jël benn bi sànni ko. ñoo bon nee nañu rek ci biir Ndakaaru Njaay soxna Rama. waaw. ci ci nee nañu neuf cent cinquante bureau de vote yi. ñoom. desele nañu rek déjà trois cent abri provisoire. kii xëy na am na ay bureau de vote yoo xamante ne sax xamuñu ko bu ñu fay dem xëy na dañuy jël benn benn urne remplie rek génne ko compté ko ne la telle parce que xam nga ñun amuñu moyen contrôler yëpp ah. lool moo tax ñu bàyyi candidat yi bëri mais gis nga yi bu ñu ko bàyyi woon ba mu nekk ay ñett day neex a contrôler. bañ a dafa ëpp nag. mais dina am ay bureau de vote yoo xam ne kenn du ko kenn du ko kenn du ko contrôler élection dañu leen a nag. parti bu nekk day am représentant bu ñuy compter lépp leer waa Sénat toog xaw ma seni ak ñeneen gars yi compter waaye du ñu ko defee noonu am na ci dina am ci ay bureau de vote yoo xamante ne benn candidat du fa toog benn du fa toog léegi nag seeni bu politiciens yeeg ak ñi nga xamante ne seen coalition Macky Sall moo leen joxel 15 millions. parce que joxeelu leen 15 mm. millions sax dañ leen a weev dañuy weev seeni 15 millions te loolu pouvoir am na doole def ko. dañ koy weev defal la récépissé de bindal la këyit ne la joxe nga 15 millions waaye joxe kaas dañ koy weev. gaa yi jël gaa yi defar ay coalition léegi nag dafa am ci loo boo ci xam ne nag daf ma naqari te gaa yi ñu ngi koy ñuum nguum nguum too mooy. Mm. candidat mbacke mbacke boobu nga xamantene dafa cheikh cheikh cheikh mbacke lu tuddu duma tuddu sax euh, bayam ndax bayam ku bax la xam nga gars sen papa yi lañuy lakanto nañ wax sen tur yi rek nañu wax sen tur yi yore communication magal gi xam nga xam nga gars dañuy dañuy don ay businessman ni porte parole Khalifina, hmm. bi nak président bu fi tok ñu commencé di la raqueter parce que ken xamulen won, avant 2007 kenn xamu leen woon. Hmm. dañoo créer mbooloo ànd ñëw infiltrer pas yi nga xamante ne jaamu yàlla rek la ñu xam ak ak ak def lu baax. ñu bundu xataal leen sonal leen imposé wu naan ñoom ñooy créer ay màggal mais ay jamono ay màggal di fi am ak ay yu nekk ñoon da ngeen leen dégg ñuy wax ci mbirum politique. Hmm. yow nga dem ba ñu naan la yaay communication yore communication màggal gi ngay ñëw naan da ngay da ngay dem ànd ak Macky Sall di liggéey. man ko dégg ci benn interview mu naan li ma dugal ci politique c'est pour défendre les intérêts de de Touba c'est faux sa intérêt bopp rek moo la tax moo la jàpp parce que businessman nga ñoom ñëpp xam nga li ma ja li ma li ma metti ci affaire Touba mooy si mbàkke mbàkke yi ay milliardaire rek ñoo ci nekk ay milliardaire rek ñoo ci nekk te bu am alal di dem di dem ndakaaru wut kër ñoom ñëpp am kër Touba euh, dakar ci place yu chic yi bàyyi seen kër bàyyi te seeni doomu bàyyi ñu nga fa ñu ku ci nekk yaa ngi seet naka ngay jaare ci politik bi ngir wut alal te seeni bàyyi ñu baax lañu ñu bëgg Sénégal ki may wax ni baayam daanaka PDS moo ko fonde daanaka hmm. sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma foo ko tuddee murit yi sukk Hmm. mais gars yi seen mais mais gars yi dañuy ñëw seeni tànku bàyyi duñu fa jaar ñuy seet la yoon le chemin le plus court le plus facile te dañuy bàyyi nag ba am ndong boy tànk booy dugg ci politique ba nga juddoo kañ la kañ nga juddu ak a yàgg lu tax defuloo politique xanaa sax boo doon yaw yow yow Ablaye Wade ngay àndal ndax sa bàyyi moo créé a PDS moo ko financé ak yeneen i parti politique nga dem bañu lay wowe chargé de la communication du magal ñepp xam la nga xamne magal bi sax boko ko xol gis nga dil yi ci nek billahi dil yi ci nek ak sàcc gi ci nek Macky Sall da leena warono audité est ce que lu leen sax dañu audité gaay di organiser magal yi ak borom borom ver yu ñuul yi di wax naan ay porte parole lañu te ay say say politique lañu buñu audité won japp leen ndax murit yi ci màggal bi il done tout gratuitement boo nee communication boo demee RTS kenn du la fayeeku soo demee Walf Sidi Lamine Niass njaaxaandaay la tëdde foo dem ci télé yi Bougane Gueye day ñëw couvrir ana seeni dépenses yi kon fan ngeen koy def ceeb yi nu leen di may ak dëwlin yi ak ndox meek ñoom seen fan ngeen koy dugal gars yi dañuy ubbi ay magasin di sàcc affaire bi bu ñu paree jaayaat ko ñoom ñëpp dañoo bëgg nekk milliardaire te seeni milliards yi liggéeyoon na seen kër maam Touba dafa soxla politique dafa soxla taatu lawbeel Macky Sall li fay dugg ci alal bu nu buggee tabax jàkk xoola sorooru jàkk yi rek ñaata lañu koy yokk xalif bu ñëw yokk benn gaa yi joxe xaalis ñu yokk ko alal am na fa ñoom sëñ Saliou bu ñu fiy jógee ay milliards lañu fi bàyyi yàlla nañu leen yàlla fayal ay booy yu con yoo xamante ne ay kaw-kaw lañu dégguñu français ñak fayda bay bëgg dé so karawato rek ñu summi seen ñu ñu summi seen tubay ay kat ay gor jigen ñuy sàcc alalu réew mi ay katu nit ay katu nit ndax kuñu kuñu contre buñ la jekko ray la ñoy ñew tok seen salon yi ñu leen di def ay talibé seigne touba mourid sadikh té duñu seen background légui nak dem nañu ba talibé yi joxatuñu leen addiya gars su ngeen bëggee billahi su ngeen buggee liggéeyal sëriñ Touba ba tey daara yu baax yi ñu ngi fi de xay xale yu sell yoo xamante ne la ñuy jàng bis bu nekk di wàcce ay kaamil nekk ci daara yi ñu ngi ci daara sëñ Saliou daara originalu sëñ Abdoulahad yeeg sëñ Soy boog sëñ sëñ sëñ sëñ Murtala ñoo nga fa de xale yi duñu moy duñu fen duñu sàcc di dund ci ay condition yu doy waar su ngeen amee alal bëgg leen dimbali dem leen ngeen sponsoriser daara yi waxuma taalibe yi nekk ci mbedd bi ndakaaru njaay de dem leen ngeen sponsoriser daara yi liggéeyal leen sëñ Touba ci daara yi ndax ñu lekk lekk gu neex ndax ñu sol yëre yu set ndax ñu am am ndox di sangu di naan ndox mu potable bàyyi ndoxu ndoxu ndoxu ndoxu ndoxu teen yi sax dem leen ngeen liggéey ci ñooñu mais ñii borom deq yu rëy yi nga xamantene jigen bu len romb ñu takku ko ay neuf jabar lañu yoré wala six jabar nanu ma mere faalewuma len xam nanu ko ëpp nu ma baatin tous amunu ko lalai lay wax ni say say su bon si bu nu jugee di cagatu ci kaw politiciens yi rek bëgg koo ci sëñ Touba te sëñ Touba fi mu jaar mosut a ak di négocier ak colon ngeen am pouvoir wara mëna jël réew mi façonné ko ni ko sen ku gis murid xamé ko ku gis sénégalais xamné murid la ngén di ñak fayda di top ay ño xamantene ne bi lañu gëm tuba bi lañu yaakar même domté biñu len domté ci technique tuba bi lañu ko jaarale amulen jom amulen jom motax duma len bayyi tay duma len bayyi ëlëk fi ak ngi def seen yofu say say yi yu ma nexé rek dina len mandil say say su bonsi ko ci wax muy sol ay verre yu ñuul ak di xural baat di neexal baat naan day topando ay serigne su baax su fi nekkon naan dañuy wax comme ñom te bu ngeen wété gel yi légui commencé sumi sen sabari di len feccal wala ngeen di ak ñom france wala ci hôtel yi ci ndakaaru ñay ngeen defé na xamuñu ko na ngeen moytu politiciens yi na ngeen len moytu na ngeen len moytu ngeen len moytu su ngeen buggee def politique créé leen seen parti politique ni ko ñeneen ñi di defee waaye bëgg la facilité bu ñu leen waxee rek ngeen ngeen ngeen teg ko ci parce que position ngeen am di ko jiite loolu dafa mën a continuer yéen ñëpp ay milliardaire ngeen ay porte parole milliardaire ah ay organisation màggal commerçant milliardaire ngeen defe ne loolu mën na cee dëkk bu ngeen wëree àdduna bi récupérer xaalisu eh, nit ñi te du ngeen ko dugal ci liggéey bi fu ngeen ko teg seen njaboot ngeen koy dugal wala seen kër bàyyi fu ngeen ko teg kenn def leen a jox addiya nit ñi sëñ Touba moom la gëm moom la yaakaar moo leen gënal seen ndey yi ak seen bàyyi du yéen na ngeen ko xam parce que nit ñi des il foog ñu leen koy wax rawatina les jeunes mbàkke mbàkke waxuma ak tiijaan waxuma ak xaadir tey waxuma ak laayeen sama mbokk murit yi mbàkke mbàkke yu ndaw yii laay waxal ñoom laay waxal tey dama da ngay des fois da ngay nekk fii di généraliser njombe bi xew ci réew mi yëpp ñoom ñoo ko indi ñoom rek ñoo ko fi indi politiciens yi rek lañuy àndal bala ngeen doon wane seen doole nag dangeen di xool ku nekk ci opposition bi ngeen dem ngeen ànd ak moom ngeen jële fi saay-saay si ñu xam ne kon am ngeen doole waaye tey bu Cheikh Béthio jógee jaar ne du ñu ànd ak lu dul ku yore pouvoir ku yore koppar ñu jël seen doom yi di leen def ay ambassadeur itinérant jël seen jabar yi di leen def ay député bu màkk jotee ñu yóbbu leen màkk yaayu demee noonu sëriñ si bëgg lëmbe réew mi rek parce que sénégalais yi dañoo pauvre sénégalais yi nangu ko ñoom tamit ñàkk fayda bay bëgg a dee gi mooy li nga xamante ne moom laa bëggoon a waxtaane tey nit ñi yeewu ci te nit ñi ne bu ñu voteel coalition Macky Sall benno bokk yaakaar te bu ñu élection yi na ngeen dem nangu seeni li ngeen moom parce que loolu rek lañu fi am bu leen leen woteel ak candidat bu mu mën a doon ci ñoom ak ñeneen ñi ànd ak ñoom parce que am na ay coalition yu ànd ak ñoom ñoo xamante ne dañuy liggéey nii rek mais Macky Sall la ñuy liggéey la ah. bu leen leen woteel bu leen leen woteel li mooy li nga xamante ne bëggoon naa ko bëggoon naa ko wax euh, ci dramu stade Demba Diop bi nag euh, ah. huit personnes yi ci faatu dajale nañu leen ñi sul nañu leen mbuur ñii ñu len leen Touba Hmm. Euh, ñi ci gaañu ñëpp ku ci nekk am na foo fenn foo xamante ne dañu la fa suul. nee nañu ñu ngi koy wax démb nee nañu euh, ci violence politique yi le maire de euh, Labgar victime de coup de feu la nee nañ dañu ko tiire démb dañoo wax ne dañu ko jam waaye ñoom nee nañu dañ ko dañ koo fital. wallaay dañ ko fi dañ ko dañ koo. waaw nee nañu dañu ko fital Ablaye Wade nag presse bi am na ñu bind nee nañu. presse bi ci ëpp dañoo jot ay consignes. baña wax fan lay fan lay nek ak fan lay dem abla wad ngi campagne bis bu nek mu ngi fen dem na dagana ci Omar sar tay ji dagana lay dem hmm. demon na kebe mer demb nee nenañu presse bi comme que ñom hmm. dañuy jot aide de la presse té Macky Sall dafa bëgg a le presse bi teg ko ci loxom di len contrôler presse en ligne bék presse euh, presse écrite ñom ñep dañoo jël décision né activité Ablaye wad dal non seulement duñu annoncer fan lañuy def mais dañu koy neub dañ koy sant parce que parce que ñi jité yoy ñep ñuko jité ñep euh, ci ki bi lañu ñu bokk ah nee nañu Youssou Ndour nag Youssou Ndour mi ma doon wax dem nee dafa suspendre tournée européenne bu mu waron def parce que nee na affaireu drame de mbour bi mo xew quoi ñi waaw ñi dé quoi waaw léegi nak euh eh, eh, amna ñeneen ño xamantene ñu ngi def seen campagne mooy ñoom Aïda Mbodj and ak ñoom Farba Senghor ak ñom pap sam mbub doomu Ablaye wad yoy nga xamantene ne Ablaye Wade nee na daanaka da leen a gedd eh, ñoom ñu ngi ko def seen politique tuddé ko mbolo wad <laughs> ñom tamit hmm. ñom tamit ñu ngi wër di def seen seen coalition di di xex euh euh ca Kolda Cheikh Tidiane Gadio dafa ah. demone démb mais neena promettre na leen l'exploitation du bois bëgg na am lu mu ci liggéey ñi ay député la rek da ngeen di duggal bu ko neexee président bi loolu président moo koy liggéey xam nga am na ñoo xam ne dañuy def ay erreur yi ñuy dig yëpp di di ko dig population bi kuy di ku bëgg a nekk député doo campagne doo ay campagne looy dig nit ñi da ngay dem proposer ay kii gars yi duñ ko jël parce que il faut mu dem présidence présidence nangu ko donc na ngeen dem rek bu ngeen amee majorité ngeen jël politique bi waaye Euh, nañu bàyyi li na ngeen bàyyi li ngeen di dig dig nit ñi xamu leen ne euh, kii bi ndax yéenay ëpp mbooloo mu leen ko xam waaw ah, leen koo xam assemblée nationale dafa doy waar la fa xew dégg nga euh, Farba Ngom nag mooy la fuuda Macky Sall nee na Matam c'est le titre foncier du président Macky Sall na na ko nit ñi xam ñi fay ñew ñëpp di def ay meeting da ngeen di sonal seen bop rek neena matam mom titre foncier Macky Sall la. moko mom fofu neena moko mom neena moko mom ta mo fay gagné hmm ci mbirum pétrole nak après xam nga angleterre ñew na france ñew na neena ñu italie italie mu ngi jema positionné wu affaire bi banana la ya dañ koy seddo de gâteau la gâteau la la ku nek jëss walu gâteau la italien ñu ngi positionné ci affaireu pétrole sénégal bi ñëppay ñëw ñëppay ñëw. wallaay Abdoul Mbaye def na sortie néna violence politique bi. néna mhm. elle est révélatrice d'une crise de valeur surtout des politiciens. ndax ñi nga mhm. xamante ne ñoo koy indi euh, ñoo euh, ñi nga xam ne indi lolu moo loolu mooy li ngeen li li seen ñàkk ñak seen euh, vision mo leen koy indil waaw. sen ñak vision mom moy li nga xamantene mom mo leen koy ah li nga xamantene aussi bëggoon naa ko ci yokku moy tay ji di 18 juillet mo naron nek 99e année euh, bu bu bu Nelson Mandela ci la juddoon. tey tay tey la ko waron am quoi. waaw loolu moy li nga xamantene ne bëggoon naa ko ci yokk léegi nag euh, procureur bi nee Mm-hmm. état bi mu ci affaire euh, affaire euh, diraamu stade Demba Diop bi. waaw nee na am na benn mm-hmm. enquête te nee na aucune aucune piste ne mène vers vers les forces de l'ordre maanaam raxas na force de l'ordre yi ba ñu set yet nee na policier te yow démb soxna Rama yaa ngi wax ne policier yaa ngi taxaw. vidéo bi ñëpp gis nañu policiers yi taxaw. Ah. mais ñu commencé enquête rek moom mu ne enquête bi daal fu mu toll nii. amul benn piste boo xam ne ci ci ci policier la jëm policier yi daal defuñu dara ci manifestation bu mag football policier yi matuñu journaliste yi ñi njëkk bind moom la ñu bind ñi njëkk commenter ci télé yi loolu la ñu wax sëriñ basiru gay moom nee na dinañu def enquête képp koo xam ne def nga dara dinañu tëj ci kaso bi waaye policier yi defuñu dara ah. ñemawuñu takal ñemawuñu takal policier yi campagne électorale bi policier yi ñoo leen di ñoo di garder buñu takalé takkalee yi am problème dé nee nañ policiers yi defuñu dara nee na leen waaw ñoom ñoo ñoon sànni lacrymogène ñii di daw fi ñi di daw fé ñee di sanante xex ga xeer ga yi daw ci benn côté mur ba daanu waye mom né policiers yi defuñu dara xam nga policier sénégal ah. sanni lacrimogène rek la xam lacrymogène loolu wala tooxiroo nañu nak lacrimogène ko ko sanni mu daw di ñaw dañoo silwisé wul silwisé wuñu gis nga police yi nekk ci réew yi ni di nga mer bay commencé wacc sax ñu ñëw baap la baap la ba nga daanu ba du ñu utiliser force waaw dañuy ñëw baap la ba nga xamante ne fi ñu waroon a utiliser violence jàmm am na fa police Sénégal bu ñëwee nag doole lay njëkk a indi bala muy xalaat. waaw et puis di la da lay xool ci ñoom ñoom noonu la te loolu day wane sunu sunu ñàkk si luy see ndeysaan wàññi lañ lay def regard wàññi yamale yamale foofu tey jukki bi soxna rama di la jox bu fekkee am na loolu ah, man daanaka dag maa jukkil sax looloo tax ma kontaan jukkil naa la <laughs> dangaa jukki xam ni nëmmoon nga rajo bi dag maa jukkil euh, donc euh, li ma ciy wax dootu bari xanaa à part que hmm. gis nga nag euh, li ñuy wax journaliste yi nanuy dem ba ci source bi hmm. di xool bu baax parce que gis nga ci gaa yooyu nga war am na benn jeune ndeysaan buñ ci tàggee hmm. man bi ma ko gisee muy wax sama yaram dafa daw yónnee naa la vidéo bi mu toog mi ngi tudd dégool gomis ndeysaan moom boo boole woon nañ ko ci ripp ji ripp ji maanaam yàlla ko euh, commencé di ko ñaanal te alors que nee na nekkul woon sax instant mi ngi dund de moo toog waxal boppam loolu nag ci gaawtu la parce que balaa ngaa jël photo doomu jaamoor jabar di ko naan pëpp ko boole euh, moom nee na dafa tiit xam nga loolu mën na la marqué imagine rek jël sa photo boole la ci ñi faatu ba commencé di la ñaanal fukki xol wa ak benn lu doy waar quoi nañu xool dem ci source ñi dee ñu photo leen moo gën euh, balaa ngaa yokk ci xar mi xolam xam li la wóor doomu jàmbur jooju jabal xam nga am ñun ñëpp dañ ko teg suñu bopp bu ñu jëloon sa photo tey di ko dàmm ni bool bokk ci attentat bi da nga xaw a tiit de da nga xaw a tiit bartali moom yàq nañu àddinaam beneen bi may wax moom njabar xaw ma dama leen war a di xaw ma dama leen war a ah. mere mbuur reçoit les depuis mais dañ ko def discrètement ba pare 4 heures du matin lañu lañu dem composé du préfet bi yaa ngi may dégg préfet bi préfet nga fa woon Saliou Samb ak émissaire Macky Sall daa di leen nag jox nag un million ñi leen bu ko kenn yëg waaw am million ci bi bu ko kenn yëg waa njawar man damaa gëm ni Sénégal euh, Sénégal def na toujours wàcce na na mu tuddati ni ñu koy waxee nit dee ñu ne def nañu deuil national ci lu loo xam ne sax danga naan lu tax ñu def ko mais pourquoi lu day di juróom-ñetti doomu sénégalais euh, daanu ci ci ci ci ci ci kii bi euh, Sénégal ni tekk rek mm. Eh, ni tekk continuer benn jour defe naa est-ce que sax toog nañu ay ay ñaari fan sax ci ñi nga xam ne ñoo ñoo dee noonu. ñu ñu suturaal leen ñaan wàcce ak alxuraan man loolu laa bëggoon dégg ah. mhm. mais pour ñoom perte de temps la parce que il préfère continuer affaire kii pour pourtant ñi dee ñoo dem di leen jox ay ay un million ni ko bu ko kenn yëg ak ñoo saytaane. mais mais soxna Rama. boobu ñu leen jox doju ko ah. ñoom ñoom jawar ces gens là. un mm. million boobu dojul bi ah ñëpp xam na dëj ñu mel Sénégal. après dama bëgg mu nekk suivi mbokk yooyu xay na tey doom yooyu am na ci doom yoo xam ne moo yoroon ndeyam ak di ko dundal xëy na amoon na avenir boo xam ne jëm na fu kanam ñooñu faatu nañ leen nañ leen jox ce qui se waaye un million nga ni pett toujours nit wax la fi ni rey nañu sama jëkkër parce que lii ah gouvernement bi ñoo commencement ay benn cinq cent mille la noppil la jox ba sànq ba ñuy jël di ko tasaare ci àll bi ko may ma Samba ak nañ ci jox ñooñu xam ne génn nañu tey àdduna ce n'est pas l'argent moo koy faj mais dina soqali loo xam ne nii euh, foofu la leen seen doom yi taxawoon discrétion nga ne yaay. ah mais mais loolu mais loolu xam nga gouvernement moo koy organisé parce que koor yi. ñoom ñoo ko récupéré woon. lu tax ñoom ñu bàyyi ba guddi ñu koy ñu koy joog a waaw d' accord naa ñoom ñoom ñoo ko organisé direction boobu ñaaw ils se sont dit que bëgguñu woon dëkk bi tàkk waaw bëgguñu dëkk bi yëg ko ñu bàyyi ba guddi ñu indil leen ko bu fekkee réellement ci sa femme morve celui qui sa sang morve sa mouche njabar bu fekkee yow lii nga def ah xam nga kañ nii ñii dañoo dee te yàlla taxoon ñu dee amoo dara sa sub conscience bi lu ci nekk di nga leen jébbal seen di nga leen jox seen i mbokk te waxtu wala doo xaar ba 4 heures du matin 4 heures du matin bokk na ci ragal yi heures du matin booba ci yaa ngi wax ne instant bii de su ma ko defaroon ni mu waree xëy na lii du ci am bi wax seen subconscience yowal mooy wax parce que xam nañu xel billaay wallaay taalay xale yi tey am na yàllaa leen woo yàllaa leen woo waaye nag am na lu ciy ñuul bu ñu defaroon bi nga xam ni moom mën a maase hmm. kon tey peut-être ay bii danañu dana dana danañu raw maa wax lii maa euh, Matar Ba moom nee na démissionné wul tey nee na ma démission n'est pas d'actualité te ma nga demoon ca benn signature contrat lamb lamb ba nag Papa Sow Ama Balde nee nañ reporté nañ ko tax kenn xamul kañ la ndax dem ba Diop lañ ko bëggoon tëggee. waaye nañ ko reporté ñoom ñu ngi sonn nañ ci mbëre bi. nañu bool bëre Sénégal jox leen leen waral ñoom. <laughs> ñoom sax na nga ñu gisee courant coupé wala euh, hôpital bu ñu taxaw xeex ko ñoom. sonn nañ ci mbëre yi bu ñu kenn rey ñun ay ak ak matériel bi ñu manqué Sénégal. Hmm. nañu bëre ak courant bi ñëw nañu bëre ak ndox bi ñëw on en a marre de ça. wallaay kenn na Barthélémy Dias nag ci violence ci violence politique yi mom neena du am benn meeting ben bokk yar ci car ci quartier mama xam khalifa sall lañu ñu hmm. khalifa sall lañu tecc ci kasso dem ci quartier am di fa indi ay histoire ñoom Youssou Ndour yi waye Barthélémy Dias jass neena len il n'y aura aucun meeting de ben bokk yaakaar chez moi neena la violence n'a pas encore commencé ku wax jass ha da nan la de da nan la de comme de aw fit la moom wax na leen ko te xam nga gars yi kuy fital ne ñoom dañu koy ragal xam nga Barthélemy Dias moom fu mu toll ni moom gars yi dañu ragal ñemewuñ eh, eh, ko de ñemewuñ ko de mais bi violence la léegi nag ñu ah, nañu quartier Khalifa Sall waaye demaguñu quartier Mermoz waaw mu nga demaguñu fa de toute façon a nga leen fay xaar ak ci rek moom amul benn problème waaw ci beneen a aca aca demal demal waa beneen bi ñuy wax xam nga ni kooku kooku kooku ñu euh, agressé noonu. Uh-huh. Euh, maire boobu. waaw euh, vraiment nag loolu yëpp boo xoolee kat jawar li ñuy expliqué. ñoom dañoo daje woon seen biir di waxtaan et puis ñàkk fayda yoo xam ni cogère la. mooy cogère xam nga ko convergence des jeunesse voilà jeex na tàkk. Ah. ñooñu ñu ngi bëgg a lëmbe dëkk bi. ñooñu ñu ngi bëgg a lëmbe dëkk bi ñawar li ñuy xeex bari na mm. li ñuy xeex bari na te boo xoolee njawar li ñuy xeex. kenn bëggul sa moram euh, euh, maanaam dépassé la kenn bëggul rek nga ni mi njawal xanaa am na loo xam ni li tax mag ñu jëkk ñi rawoon ñu xam nga lan la woon mm. jiitul ma topp ci amatul mm. jiitul ma topp la mm. loolu la mag ñu jëkk defee jiitul ma topp la mais du wàññi ci sa ngóor a dara njawal du ko wàññi wallaay a bi nga ma topp ci wàññiwul dara noonu la ñu waroon def rek ci politique bi euh, ñu xam ni kenn jiitu ñu bàyyi ki jiitu moo la jiitu nga topp si ginnaaw waaye boo bëggee ñëpp jiitoo doo bunt sax boo ko àkkee ñëpp bëgg a jiite ndoo njabar mu tuux tubaab tubaab yi nee nañ un bon leader est un bon suiveur soo nekkee un vrai leader bu ñu la boo jiituwulee da ngay mën a topp ndax ni nga bëgg ñu toppee la noon ngay toppaatee ki la jiitu c'est rek da jiitu yi jiitu rek voilà jiitu nag moom dafa ëpp nag njabar jiitu dafa ëpp na yàlla yi comme li wax rek na ko gaa yi xam ci kenn dee pour politicien par contre mën nga dee pour Sénégal hmm. ci

ay yow fa la lépp toxé daxa aljana ñom ñep seen bag yi dañ ko dañ leen ko jaay sax ma tay euh ci mbirum production d'or nak sa saba dola sona rama wa ilaha illallah men saba dola gaay ni nek fi di wax gaz bi rek mais tubab yaangi tank sunu or bi rek de ay baña tank nenañu dafa am dafa am une production record au Sénégal parce que entre avril avril avril mai juin ci ñetti wër yoyu Ah. compagnie bi nga xamantene ne mo tuddu ASX ak ah. KSX muy ah. euh, muy Terang Gold xam nga ñom seen turi waxu ñuko sax ñu xam ñan lañu ay ASX kenn xamul lu muy signifier ay TSX kenn xamul lu muy signifier wu nenañu ñom produire nañu li ñu genn ci or mat na 57557 onces d'or minus minus minu saba bi te lolou nenañ moy record ku yàlla tàccu da nga war a fecc waay tey ñoo soxor waay. wallaay wallaay wallaay wallaay. tey ñoo nañu loolu lañu defar ci ci production d'or nee na ñoom instant bi ci moment bi ñu toll nii nekk nañu ci yoon woo xamante ne mooy seen yoonu objectif boo xamante ne dañuy hmm. bëgg a produire deux cent cinq mille onze. Ah. bu bu bu ay ci or entre deux cent cinq ak deux cent vingt cinq mille. neena na loolu la bëgg Richard Young moo ko wax Richard Young xam nga kooku américain la xaalala ah américain yi compagnie américaine yeeg compagnie française yeeg ñëpp ñu ngi leen di jaay sunu or yi te dégg naa dix pour cent la ah. ama parce que ñoom ñooñu ñooñu ñëw ci or bi xam nga ñun dañuy di nekk fàtte yow yéen a ngi nii yéen jigéen ñi or rek ngeen bëgg te mënu leen koo am Sénégal fu ngeen est ce que mos ngeen a gis oru Sénégal moo tax du ngeen or Sénégal 14 du ngeen du ngeen xencu gaz beeg ak gaz beeg pétrole bi Bila orang or bi eh, di def noonu lañ ko dul xenco waay yàlla nañu de ah duñu fecc nag ñoo feccul de bilaay yàlla tàcc nañu bilaay suñu mag ñu baax ni seen ñaan ñëw na mais duñ ko gis ñewal loolu laa ubbee di di ko wax di ma la wax duñ ko gis ñewal danañ romb la ilaha illallah saba dola kenn waxatu ci ay ñoo bon yàlla ñu yàlla tàggale ñoom ñoo bon ñoo bon ñu bàyyi gaay ñu bàyyi gaay fekkee am na ci bëgg te ya, bismillah euh ñu jox leen ko xam ci Moussa lay lay tàmbalee démb joxuma ko woon kàddu dem dem dem gaay dañoo bari woon ma ne ma naa garaaw naa gi da guddi woon nag quoi Moussa baal gedd waaye tamit waaye dégg naa démb da nga non non wala non non jamais non non dama dama xamoon da ngay sonn rek da ngay sonn quoi guddi woon nag ma ne def comme da fël plate fay télé bi yaay yaay ni xam dafa lay di rafetlu waxtaan wi Euh, vraiment di contane euh, ci sa mais en fait euh, Sénégal tant que la question de la colonie parce que la colonie colonie mm-hmm. parce qu'on n'a pas de pays on a une colonie française mm-hmm. il faut que nous régler cette histoire parce que bo ñun paysans am ñu bu ñuy dañuy pays nous promettre nek bu ñëwé colonie lañ fi fekk xam nga dem ay expliquer le cas de euh, euh Jamaïque. waaw peut-être boobu dafa officiel rek mais ñu suñu boss dafa officieuse. aha ci ko ñëw régler ko loolu tant que souveraineté boobu amuñu ko ci fu ñëw rek da ngay saboté. ci te di dama ñëw jël sama wala dem sama yoon parce que xam naa ne lii mënuma ci dara euh, euh, crescendo ci suuf la jëm ah, ah naa ci posto boo joxoo loolu man jàpp naa ne dafa dafa reflété wu ci lu waral tey Macky Sall organisé organisé wu son parti sa tey Macky Sall bu amoon lu mu bëgg mooy rakkam mooy doon numéro 2 bu jógee rakkam mun a mun a positionné wu comme activité boobu du structuré parti en profit ci avantage yi nga xam ne moom lay am te bu dem yoon ñi nga xam ne ñoom ñoom la jiite et qui ont pris le jeu et moo tax tey rayante na xam nañu tey Macky Sall bu daanoo parti mais ab ab doon am dafa xool ñii ngay gisee ci par seen après ne gis pas apa ne itu église woon de ay bees yoo xam ay ñi ëpp maanaam maanaam dañ mel ni ay autre loolu la rek moo waral ay plante bi doo ënd sinon dafa dama bëgg a aborder yeneen deux points point mais dafa bëgg ci def man dama nga am dignité mun nga ñàkk dignité tey yëpp dafay daf koy am am lu lu waaye ci histoire te tey ci ngay doon sëriñ wala nga loo mën tey maanaam nit boobu du mës a daj du ak def def ko dama bu mu ci ñu koy mu jaru ko ñoom dem def def fi la lu du bu Sall Sall ตกไปใมัดสั่งบุกบุกมาที่วัดขอสับมาเรื่อยมาแต่เด็กเด็กเด็กสั่งอะไรเอามิรสับยูสุนสันติตอาเอาแต่ฟุกฮานยินยืนแต่ทำไมยูสุนก็ต้เอาตัวกบ้านไปบ้านไปเลยเพราะสับนั่นเนี่ยเด็กเด็กเรียนแต่ปากด้วยแต่คนนกนกนกปลาปลาฟิชจิจิจิจิจิจิพุทธาชอบเพื่อไปนั่งแต่เด็กยูสุนไปจมัดสับอารมณ์เป็นสุขอัสมันจะเสียทรมเอาสิยินยิน def na ne xëy na xale benn ñëw boo xam ne mbëgg wala ci am ci yow war ko mën a jàppale ne mooy internet mooy fa da ki dem ba dégg yaan maar di wax raaj ñoo fa am benn benn démembrement au niveau si bu taxe kii conseil pour que jàpp ma ko ñaan ñaan bu connect et que ñoom ñu ne ñoom niiru kenn

kanta jaf ngal pol pol ci xaan dam dam damay damay damay gëm na rek que ne euh, Abdoulaye Wade ko fi jële complot ci ñoom complot dañ ci participer parce que mën comprendre présidentielle nga jël ci position référendum nga jël ci position législative bi gën a am enjeu parce que maanaam législative bi première mi-temps présidentielle la gana ci wax quand on sait que Macky Sall bu ko neex mi ngay def carte carte électorale nangu joxe fiche électorale nangu joxe ñi nga yor abante mu ñu ci lool ñi nga ci tek même ngeen jot position mais ci ci ñu ci ñoo ñu ci parce ñom tay mouvement de citoyen te kon mouvement citoyen loolu programme wol ko jox ma ñu jëp gërëm waaw waaw jaarama jaarama assalamualaikum waalaikum salam ma ngi lay nuyu ak di nuyu soxna rama ak Moussa Ba waaw ak ñëpp waaw fàttewuñu kenn ndax ku lim juum hmm. alhamdulilah rabbil alamin assemblée nationale commencé wat na session waaw assemblée nationale sunu assemblée nationale bi maanaam commencé wat na liggéeyam waaw waaye de dinaa la xamal len de hmm. man de damay bëgg jom ci sénégal allahu akbar waaw waaw Serigne Bassirou Gueye xam nga xam nga nee mooy procureur du procureur surgal c'est un mercenaire alimentaire encapuchonné voilà te sax bu ñu fontoon nit ñi xam nga man man ba Serigne Bassirou Gueye man damay bëgg a jomm ci parce que le juge soi-disant le doyen du juge Samba Sall ak Serigne Bassirou Gueye ay mercenaires yu mag lañu c'est des arrivistes maa ko wax voilà parce que lu ëpp tuuru Serigne Bassirou Gueye dàqu fay jàng kenn kenn la fi dàqu fay te sax deme billahi si fi justice amee daañu seet seen i mbir Serigne Bassirou Gueye moomu parce que ñun kenn mun noo nax nag waaw kenn mun noo nax nag waaw parce que ci drame euh, du stade Demba Diop pas de responsabilité de la police ça n'engage que lui évidemment lui manam wax dañ koy joxoñ waxal dañ koy dañ koy waxal parce que li wax waaw parce que li tax mu wax la responsabilité de la police euh, en fait de la police n'engage que lui parce que il y a, c'est une faute, c'est un crime d'État. Voilà. C'est tout. Madame, nous, nous, nous, Parce que, accuser la police revient à culpabiliser les crimes imprescriptibles d'État, euh, euh, ci Macky Sall. moom ci boppam te sax war naa seetaat mbiram fan la jële xaalisam bu bari bi moom ci boppam sëriñ Bassirou Gueye fan la jële xaalisam fan la ko jële

waaw ñoom ci loolu lañ nekk ba pare di bëgg a aakimoo lépp ma ne demain quand la justice fera libre sera libre demain on va s'occuper de lui voilà Macky Sall moom lay def ministre moom ko nommé c'est tout d'ailleurs sax c'est ce qui se ressemble ça semble loolu la te li may wax amul kenn ku ko mën a wet ko wet rek teg dara voilà mais dëkk boo xam ne bala ñu laa bala nga am xaalis ñu nommé la trois mois nga nekk multimilliardaire di jënd ay kër fu na nga nekk fa di toilette di dégg nga dégg nga di bew defe ne yaa dégg moom adduna bi Sénégal képp nekk di murante dund bi seer na waaw le courant électrique xooy topp ndox mi manqué mu menacer la santé des populations nga xam ne finalement mbir mi foo ko tax fees na ko te ñoom bu leen and xori ko ñu sàcc alal réew mi di tukki di paaj ko waaw banque mondiale nekk ak yeneen di ŋàcc réew mi di tàggasante ci seen les morts apocalyptiques infinies se multiplie à un rythme boo xamante ni bii kii doon dépéré waaw ñuy latoo lasi couverture maladie universelle mu doy maanaam ah, ah, ah, maanaam un problème emphatique waaw mu ni c'est-à-dire que man li may wax sax du ma xam lu may wax am ngeen bu ñu nekkoon ci dans un régime normal duñ fi nekk di bajan sax ñoom ñëpp la ñuy tëj ci kaso bi ñoom ñëpp la ñuy tëj ci kaso bi Bassirou Gueye moomu Serigne Bassirou Gueye moomu bif tekkam dongo lay défendre tout y compris même toute la classe politique cartélisée y compris les hommes à la double casquette waaw il faut que bu ñu bëggee génn ci tumuranke bi il faut que président de la république ñu sànne ay par ci parquet bi parquet boo xam koy dirige le ministre il est dirigé par le chef de l'exécutif il agit sur commande et directement doon sur ndigal ñu le Sénégal un état de droit voilà la démocratie le gouvernement du peuple par le peuple du peuple ay ay ay carte finalement ñu ngi koy joxe compte selon la tête des clients anam des éditeurs au bon et mauvais endroit ce temps le griot de la dernière heure Macky Sall la la euh, man de monsieur Il Macky Sall Macky Sall c'est-à-dire que man li may dégg ci Macky Sall ko ci voilà comme sunu sëriñ baax yi pour que ñu yegg l'entente cordiale avec le pouvoir politique ndax dëkk ci réew lañ fi nekkoon buñ ci góobe gàtt c'est des légèretés tout simplement circuit électoral comédie la tartu bari la maskat la indité la pew la compromis la divertir wu la surtout parfois boobu man de li ma gëm mooy c'est ma dara ci Macky Sall man li ma xalaat bi dara ci ma Sénégal yi toppoon bés bu Sall sàccee élection te dañ ko jéem a sàcc bu mu fa naan fale te en ce moment il faut que rapport de force change de camp et tout de suite immédiatement sans avoir une seule de plus mettre au poignet y compris toute sa famille voilà mu woo mag de jóg leen kontaanam bi tabax yu nekk maanaam les voisins de Khalifa Sall voilà li ma ci gën a metti même carte électorale, mais xel ma ànd l'esprit national maintenant d'entraîner à de droit au vingt qui existent, les sénégalais ont am droit de vote massivement parce que des citoyens libres am nañ ci c'est un droit inalien qu'il faudrait absolument arracher leur carte électorale.

question bi me posé évidemment des questions, ça passe dans dama ci parce que def na est finalement la euh, la à l'influence de Yabondo, Élysée, vit au d'un monsieur personnel, fial, ethnique, sans ségrégation d'apartheid. Puis, Abdoulaye Watt, la presse dit qu'on peu. Mais, en vérité,

attention au cœur de délinquants. Je dis les mots tels qu'ils euh, euh, sont. Ils n'ont pas compris qui croient. C'est ça. Le service public qui ça fait partie des méthodes fascistes confiscatoires à la démocratie et des formes de conscience de crois aussi pour que l'ensemble des Sénégalais mentent. Et puis, vraiment, parce que j'ai des matériels,

waaw njawaar asalaamaaleykum di nuyu ñëpp ñëpp ya ñu ya, ya? ahmed job képp eh, koo xam ne yaa ngi fi rek ak soxna rama ñu ngi lay fay saako eh, waaw mais man tey njawar man xam naa wax ci sori mais dañu dimbali ngir yàlla wa rasuli bu fekkee Sall mi ngi dimbali carte tawat ñi ngi utiliser ñi ngi utiliser loo xamante que nii xamuñu àq buñ ci am parce que ñun élection rek la soxla carte man sama ngi ni war na voyager mënul am passeport il faut carte carte am génn ah mais nañu jox suñu carte du du élection rek moo ñu soxla carte sax carte dañ ko sox ak leneen rek leneen nañu dundoon ngir yàlla jox suñu carte bi nañ ci campagne di ak bo xolé campagne bi yëpp képp koo xamante ne ci place nga nekk rek mi ngi nekk ci entre Macky Sall et parti Macky Sall bi ak waa waa waa ki euh, ki waa ñu tudd Khalifa Sall te loolu doo gis kenn benn benn autorité ci wax ci maanaam recréeru bi kenn dem mi ngi doon wax ci affaire station ci amoon te ñi ñu jige bu ñuy vieux mais xale nan la def li ma bëgg rek yàlla ci ñu yàlla laa war a bëggee sax na mais nañu wax suñu carte man man naa a na de ah man de xaw ma lan de mais lu ma dal ci côté euh, fan yi daal lépp loo xamante ni naqar la sama diggante والله تقبل تقبل كل ما تشكره واو هاي جي يقولون طب نازكنا بنك طال بدم تبي تفرش ما قبل ما تبر تبي تفرش يا فلك مين يجي تبدك إذن كم ما تفكر دوار نعم بركتو والله سين وقت عن موم خام خام إدلاج آه هذي نكتب الإنسان شاطر

day bu mag liggéeyal sëñ Touba yàlla na ko yàlla fay li mu ko liggéey tey jii moom yàlla mbokk bi moom ma yónni euh, moo ma yónnee information bi euh, xamoon naa ne le 18 la mais dama dama defoon le 18 juin la mais effectivement mois de juillet le 18 juillet 1989 ndeysaan waaw ci la ci la ci la làqo woon ndeysaan yàlla nañu ko yàlla fayal yal na gisee ak baayam ba sëñ Tuubaa sëñ Abdou sëñ ñëw euh, euh, ñëw ci 18 juillet boobu. ba defe naa mois de mois de juin. daay ba mois de juin 90 sëñ Saliou Mbacke ñëw. doon sunu xarit yal na leen yàlla fayal. ci liggéey yëpp ci lislaam ci yoon wu ñu tracé ba tax na tey ñun euh, accès ci.

moom moom laa moom lañ doon bëgg a waxtaane tey gis nga des na neuf minutes waaye waaye boucler nañu lépp li nga xamante ne waroon nañu ko wax bu subaa incha allah ñu compléter ko avec d'autres informations euh, gën a interpréter aussi ay ay ay mbir yoo xamante ne xew na ci élection yi wala mu xew ci euh, euh, ci réew mi nit ñi war koo mën a xam ndax nit ñi dañuy fàtte il faut ñu leen di fàttali bis bu nekk bu nu ko defulee rek dañuy fàtte amna ñoo xamante faté nañu sax ay mbir yu fi xewon daaw lu ne xew na fi yeneen problème nak il faut ñuy waxtaan diko interpréter diko ko bu ko défé gaay diko faté ko ah way wax nga dëgg yow li amon na fi dé koy fatali xaalis bu bari taxul nit gagné élection wax dëgg yàlla xaalis bu bari taxul nit gagné élection mbolo mi rir tamit di dem ci meeting yi taxul nit gagné élection li yep hmm, ci fiñ koy équation bi koy moy équation 2012 yagul dé nek ci télé bi tamit fess ko del di ci génn chaque minute taxul nga gagner élection dé équation 2012 moy génn solution bobu théorème 2012 hmm. théorème wad non la tudd 2012 dem ci sëriñ ci tamit porte parole yi di la accueillir di di la hmm. defal ay discours yo mën dégg taxul nga gagner élection de théorème Ablaye Wade 2012 moo koy résoudre équation boobu c'est une équation mathématique buñ ko fàtte mbooloo mi riir ànd ak yow gars yi def ay prédiction ne danañu la fekk ca palais ba wala yaay feesal assemblée nationale taxul nga gañe ay élection yooyu yëpp même théorème bi moo koy moo koy moo koy moo koy toj dañu ko xam bu gars yi nit ñi boo fekkee ay nit ñu xiif soo indee lu ñuy lekk lu ñuy lekk lu ñuy gën a jël kuy dox ci désert ba mara naan ndaay quelques secondes dese ko mu dee soo ko indilee un milliard jox ko ci désert bi benn kaasu ndox moo ko ko gënal ndeysaan benn kaasu ndox moo ko ko gënal donc xam ne mbir mi ni nit ñi di toppee politiciens yi c'est parce que dañoo yore seen solution immédiate moo tax gars yi topp leen de waaye seen biir xool li ci nekk ñoom xam nañu ko alo ma maa ngi en direct ci rajo bi ah kii di wax ak man de euh, xaw ma ko de am ah, coupé rek ah voilà li gars di topp nit ñi ci rajo yeeg ci télé yi topp mbooloo mi ngeen defe ne dañoo bëri doole équation Ablaye Wade wane na ni amuñu doole l'équation de 2012 moo ko wane amuñu doole nit ñi nag xiif nañu am nañu ay problème mënuñu koo faj fu ñu ko yaakaar rek lañuy dem waaye bis bu ñu sóoree tuuti rek ñooñu dañ leen di bàyyi mooy indi vote sanction yi ak naxee mbaay léegi nag amado Ba la ñu jiital ginnaaw bi ñu terrassé Mimi Touré Jital nañ ko ci liste bi nee nañ politicien bu mag la mu ngi wër rek yore ay caisse xaalisam di wër di distribuer fu mu toll ni moy ah, numéro 2 wu Macky Sall bi nga xamantene ken annoncé wuko Amadou Ba ñu nak gisoon nañ ko bu yàgg bi ñuy dëkk wax fi Amadou Ba mbirum Amadou Ba fii ci radio bi man na ñaari at bobu gaay yi guñu ko won allo demandé à Marie. kooku xam naa sama sama sama kii lay ah. kii mënuma wax mënuma moom maa ngi tëj émission bi léegi de toute façon. Ah. terme ah. indo nanu xam ne moment bi ñu nekk. xiif bi gaay mhm. xiif moo tax ñu topp leen. amoon na ñu ñu jiitaloon amuñu résultat ñu dàq leen te góor gi ku amul résultat waa ji fi nekk. ku amul résultat da lay dak légui nak ak choono gi ni muy doxé nañu gis ahmadou ba ay na mom amna na sëriñ waaye bu na momi touré li mu jëlee mujjee di balo ak ñëpp képp ku fi dégg lo xamné ne ñu ngi lay jéggelu ku fi dégg lo xamante ne lu la amee la partager ko ak ñeneen ñu jot ko waaw di ñaanal jamm ñëpp ñu ñu doon déglu ak ñi nga xamante ñoo ñuy ñaanal jamm di ko ñaanal seen njaboot ak seen famille Eh, di leen jox dox daje incha allah bu suba soxna Rama kàddu gaa ngoog. waa Njawa dugg nañ ceeg bisimilahi rahmaani génn ceeg alhamdulilahi rabil alamina yal na yàlla wàcce senegal jàmm. amiin leen wax à demain même heure même jour jërë ngeen jëf gaañ yi leen fan ci daraja yi sëñ Tuubaa Mbàkke. ñépp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñépp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux Carla. Ah, sama gaa ñi dégloo dégloo ci sunu kër FM sunu rajo la.

non non ma je veux que nga dem fii ma énergie mine ñu dem accident bi am ma équipement On est surcharge bu quand ba ñu ci génnee Idrissa Seck di gouvernement bureau la première fois ne ma toogal gouvernement boole ma ci pour ma jox xalaat ci koo ne ministre nga laaj ko finalement ma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 ne kenn xam ko pour suba tor ko tala ñii nga xam ne nag da nga leen fekk ma jox la poste bi ñii ñoom fi fekk mu jox la poste damay seede ni amul kenn ci ñoom ne ak bi tax jox ko lii ne kor yi nga fekkoon ci parti bi rek yàgg noo ngi waaye nag kenn kuñ jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la lu tax nga jox ma jaaxal ne bu ko defoon jaaxal ma leen man wax lii wala lëlël du leen wax lii wala lël lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek lu dul rek sama bëgg-bëgg bëgg bopp yàlla moo ma xëy rek ci loolu man dem ko yàlla ma ko sant mënu ko expliqué ma ñoo am na ñu xam ne woon dugg seen bopp moo ma xëy ci loolu ah président ne waaye nag yàlla ko xëy ci loolu bu waxtaan waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles ministère de l'intérieur en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal